bismillah aouzu billahi samil alim albaaxil xadim min asheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ngi leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam comme niñ ko baaxoo amale ci waxtu yu mel nii fii ci maktabatu Seexul Xadim daaray kaamil ñu ñëwaat ci seen thème bu am solo muy l'importance de l'éducation morale à l'école ñu ci ànd ak inspecteur Cheikh Mbacke Niang ki war a feggool jotaay bi nekk euh, sëñ Bassirou Yatara mi nga xam ne moom moo jiite commission scientifique bu nekk fi daara ji xam naa ni ñu ko baaxoo amalee rek bu ñu waxtu yu mel nii bu ñu invité bu ñu amalee waxtaan dañuy invité benn école wala ben daara tey daara ñu invité woon muy groupe scolaire Touba Aljana nekk am daara am internat am tamit franco arabe nga xam ne ci jiitul sëñ Ousseynou Fall ànd ak délégation bi àndal ak élèves yi ngeen gis ñu toog suñu kanam école ngi nekk gaawaan di leen fàttali ne ne waxtaan yi si di ñu ngi koy jàllale ñu ngi koy jàllale ci télé bi di Touba Touba mi ngi koy def en direct chaîne YouTube ñu ngi koy teg Daaray Kamil TV mi ngi koy jàll en direct mën ngi ko faa topp Touba Vision Bichri TV Rava TV Académie Minan Touba Pro TV Siwal TV Icap TV Touba Monde bi TV rajo yi tamit ñu ngi koy jàlle en direct en même temps tamit ngi koy rediffusé ci 22h mooy RTS Touba Mbacké FM Benno FM kon pour njëkkanteeg waxtu rek dañuy jox kàddu gu sëñ Basiru Jatara mu commencé liggéey bi sëñ Basiru bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wa mawlana muhammadin il amin ila yawmi ddin aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell di leen ziyaare ci weer wu tedd bii ñu nekk ak ci barab bu tedd bii ñu nekk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi e, ki nga xam ne mooy kilifal yoon wi di Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa mu sàmm ko te guddal aw fanam ba liggéey yim mu war liggéey yépp mu taxawee ko ca anam ba mu gën a rafetee te ñu ànd ko ak moom di leen dalal bu baax a baax ci barab bu tedd bii ñu nekk muy maktabatu Cheikhil Xadim ci turu kilifa barab bi di Cheikh Mouhamadul Moustapha Jatara di leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañ nekk di chahru ramadanul mubarak di am mbégte di ñëwaat ci seen jataay yi nga xamante ne bi moom lañ leen baaxoo indil ci weeru koor wi lépp ngir dundalee ko weeru koor wi ak ngir jariñ mbokk jullit ñi ak mbokk taalibe yi nga xamante ne bi ñooy ñëw ci barab bi ak ñi nga xamante ne bi ñooy ñuy topp ci jumtukaay yu xarala yi ni ko baaxoo xamee bis bu nekk ci jamono heure bii nii danañ tànn benn boroom xam-xam mu tereeteel ñu benn thème bu am solo boo xamante ne bii bu yitteel la tey nag ñu ñëwaat ngir sof ci waxtaan yooyu yi nga xam ne ci lañ nekkoon euh, ki nga xamante ne bii moom lañ tànn tey nag mu war ñoo waxtaanal euh, du fi gan ndax ci dëkk bi la dëkk doon koo xamante ne bii waajuram ku ñëpp xam la rawatina barab bii ñu nekk. nga xamante ne bi ba ko Cheikh Abdoul Ahad di sos mën naa wax li ëpp ci taxawaay ba moo ko taxawee woon mooy Cheikh Mouhamadul Mahmoud Ñang di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala dolli ko ay leer dolli ko ay ngërëm kenn ku ci ne xam na ne barab bi amoon na fi taxawaay bu ama am solo mooy waajuru ki nga xamante ne bi moo ñu war a defal waxtaan tey muy inspecteur Serigne Cheikh Mbacké Ñang di nekk inspecteur ci wàllu éducation ci làkk arab doon koo xamante ne bi tamit fii ñëpp di jaar ci wàllu jàng jaar na fa ci wàllu jàng alxuraan ci dëkk bi ci njaareem e, ci bitim réew ca Maroc jàng na fa ba am ay lijaasaam e, ñëwaat fii tamit defaat e, ci wàllu école yi mu yëngatu ci wàllu jàngale ci anam yu yaatu waaye di continuer am njàngam tamit ba amaat lijaasa yi gën a kawe muy master ak diplôme yi ci tege yépp kon ki ñu war a defal waxtaan wi boroom xam-xam la boo xamante ni bi ci wàllu gii mu yëngatu ñu ci bari ci ñi ci yëngatu xam nañ ko ci xam nañ ci compétence am xam nañ ci euh, ada bi mu ciy def kon inspecteur Cheikh Mbacke Niang moom mii moo ñu war a defal waxtaan wi nga xamante ne bi moom la ñu war a am tey waxtaan wi nga xam ne moom la ñu war a defal nag tomb la bu am solo boo xamante ne bi bu mu xam la ndax ku jàngale ay at nekk inspecteur lu yàgg-yàgg ci école yi buñ tànnee li ñuy tuddee at tarbiya al xiiya muy ahamiyatu tarbiya al xuluqiya fil madaaris yi muy solo soo xamante ne bii li ñuy tuddee eh, maanaam wàllu yar jikko yi ñi koy wax éducation morale solo su mu am ci suñu daara yi loolu mooy tomb waxtaan wi ku ne xam na ne suñu daara yi dañuy jàngale xam-xam waaye nag la ëpp solo ca daara mooy yar éducation bañ nañ ko ba daar yu suufe yi bu ñuy wax du ñuy wax wàllu jàngale waaye wàllu éducation la ñuy wax te mooy wàllu yar jubbanti xale bi def ci moom ay jikko yu baax def ci moom euh, ay jikko yoo xamante ne bi dana tax bu ëllëgee fu mën a nekk ak ci ñum mën a nekk dana mën a jaxasoo ñoom ci jaxasoo ba gën a rafet ci jaxasoo boo xamante ne bi danañ gërëm melokaanam waaye ci melokaan woo xamante ne bi tamit ku ko melowoo dana tax développement gën a mën a am rawatina développement boo xamante ne bi jikko moo koy lal seetlu gu ñu seetlu nag ne eh, jikko yu am solo yooyu ak valeur yu am solo yi gis nañ ne mi ngi manqué ci daara yi rawatina école yi eh, moo tax seetlu giñ seentu la mi ngi tàmbali di manqué ndax yu ci bari ci eh, wàllu matière yi ñuy jàngale dëkk la dañuy gën a yittewoo continue yi nga xamante ni bi mooy joxe al ilm wal maarifa muy wàllu xam-xam rek waaye duñ beral éducation morale wala euh, tarbiyal xuluxiya duñ ko beral matière boppam wala duñ ko boole ci activité yi nga xamante ne bi moom la école bi di def ba xale bi euh, mu mën a am ay valeur am ay jikko yoo xamante ne bi bu génnee ci société bi dana mën a dund ci anamin wi nga xamante ne bi mooy anamin wi gën a mucc ayib xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne euh, sunu borom daf ko yónni ngir mu mottali jikko yi te jikko nag nit ki bu ko amut manqué na lu baree bari wala amul dara ndax waykat ba waxoon na ne wa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa inhumu zahabat axlaaquhum zahabu aw xeet bu fekkee amuñ ay jikko nañ xam ne aw xeet amatu fa euh, sëriñ tubaa waxoon na debil ne fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ilal aza wa taabi xam-xam bu bari te àndut ak teggin ay coono kese lay indil boroom loolu nag seetlu gi ñu seetlu ne mi ngi tàmbali di manqué ci école yi mu am ay phénomènes yu yoo xamante ne bi ñu ngi koy commencer gis ci école yi te mu doon loo xam ne wërta am te ñu gis ne la tax mu fay am mooy manque gu fa euh, éducation morale wala yar jikko yi manque moo xam ci matière bu ñu ciy dugal la moo xam ci bàyyi koy bàyyi xel la ci activités yi ñuy def gis guñ gis ne manqué na moo tax ñu tànn thème bi euh, tànn tamit Serigne Cheikh Mbacke ñan mii nga xamante ni bii euh, ku ñu jàpp na xam na ko moo tax ñu jox ko ko kon sëriñ Cheikh Mbacke Niang moom la ñuy daal di jox kàddu gi mu daal di dugg ci waxtaan wi ñu di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala defal ko tawfiq moom it mi ngi liggéeyee léegi ci mu jàmmaw Cheikhul Khadim bii nga xamante ne bi moom lañ ubbi bu yàggut nekk ca direction bi nga xamante ne bi mooy toppatoo wàllu école yi ne ci biir dëkk bi kon yaakaar naa lii ma tudd lépp tax na ñu war koo bàyyee xel bu baax xam ne kii ñu jox tem mu tey bii day liñ ko jox lu mu lu mu xam la kon li ñuy mooy ñaanal ko sunu borom tabaraka wa taala defal ko tawfiq kon inspecteur kàddu nga mi ngoog bismillah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa muhammadin wa ala wa sahabatihi alkiram euh, sëriñ Bassirou jërëjëf ci kàddu yu ak laytaay yu am solo yi nga def euh, ñoo ngi lay ziyaare bu baax a baax di rafetlu kàddu yi di la ndokkeel ci weeru koor wi di ko jaarale ci yow ngir mu jàll ci mboolem ñi lay jàppale ci liggéey bi ñuy nuyu di ziare tamit kilifa barab bi di sëriñ Mouhamadou Moustapha Jatara mi nga xamante ni moom la kilifa yi teg barab bi ci loxoom ca ñu ci def liggéey bu ama am solo moom ak ñi koy jàppale ba seetlu nañ ni at yu mujj yi daaray kaamil doxeen wi ak yoreen wi am nag soppeeku bu baax a baax ci anam bu mucc ayib waaye nuyoo yooyu ak ziyaare yooyu tamit ñoo ngi ciy jiital eh, kilifa yoonu murid muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ndokkeel ci weeru koor wi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool tamay ko ak wér àggale naal yi ci sago ca ànd ko ak taalibe yi di nuyu sunu rakk yi sunu doom yi sunu jarbaat yi nekk fii ñuy sàkku xam-xam yi Eh, di di leen ziare ci weeru koor wi eh, di leen ñaanal yàlla tawféex ci li ñuy def di nuyu di ziare mboolem ñi ànd ak ñun jotaay bi doonte nekkuñ fiit te jaare ko ci eh, jumtukaayu xarala yi sëriñ Bassirou wax nga ko laytaay bi am na solo tomb bi bu ama ama am solo la muy wàllu yar defar jikko yi lu am solo la loo xamante ni euh, solo si xëy na ci biir waxtaan wi dana gën a feeñ ci tàmbali bi rek dañu wax ni doomu aadama bi ko yàlla sàkkee da ko da ko sàkk defal ko dëxëñ ci moom ay mbir yoo xamante ni doomu aadama daanaka mën naa nekk lu ne mën naa nekk malaaka ci baax mën naa dem ba jege malaaka ci baax waaye mën naa euh, mel na iblis ci yaafus ci bon ci ci ci jikko yu ñaaw yooyu nag yàlla da koo waajal da koo bind noonu defu ko mu mel neen waaye daf koo bind ci anam boo xamante ni côté wàll goo ko ci jëmale rek mu nekk mu mu mu mu nekk lool mu nekk mu sori ci lool loolu la ñuy tudd ay isti'daadaat loo xam dañ ko koo waajal bu ñëwee nag nekk loolu nga xam ni melagut nen na société bi fi muy dund ak nit ñi ñoo koy melal nam mel rek waaw kon luñ bëgg mu mel nii rek nañ ko jaarale ci yoon bu ñu bëggee mu nekk seytaan yi nekk iblis ci kaw suuf ndax mën a yàq bu boobaa it dañ koy jaarale ci yoon woowu mu mujj nekk bandi bu mag a mag a mag buñ bëggee mu nekk nit ku baax ku yiwee daanaka ba jege malaaka yi ci yiwee tamit dañ koy jaarale ci yoon woowu jumtukaay bi lay may lool nag mooy wàllu yar te bu leen fàtte ni doomu aadama yàlla da ko sàkk wàcce ko ci kaw suuf sant ko ab liggéey mooy mission sant ko ab liggéey liggéey bi mooy mu jaamu yàlla euh, ba noppi dundal suuf si jaamu yàlla nag bala nga ko mën a def da ngay xam li yàlla bëgg lan la ndax yàlla moom ni mu bëgg ñu jaamoo ko ni wax na ko ku ko xamul nag doo ko mën a def loolu dafay laaj ab njàng dafay laaj ab yar dundal suuf si tamit mooy tax ñu mën fee nekk nekkin woo xamante ne dana ñu may ñu mën a jaamu yàlla ndax suuf si tamit li munta ñàkk la fi yàlla def li ci des lépp nit moo ko war a xalaatal boppam moo ko war wuti léegi mu defal nit nag jumtukaay boo xamante ni moom rek la ko defal muy xel xel moomu nit rek moo ko am yi ci des yëpp mbindeef yi ci des amuñ xel looloo tax nag euh, doomu aadama euh, am solo taxawu ko am solo ca doomu aadama yàlla da ko bindee noo xam ne tamit a dund moom kese mënta beru di dund moom kese faawu ci biiri nit rek lay mën a dund ci ay nit nag buñ dajee xalaat yi dana wuute bëgg-bëgg yi dana wuute jikko yi dana wuute jëflante yi dana wuute euh, su ko defee loolu dafay laaj nag saytu bu baax a baax ndax su dul loolu rek boo wutut ay jàppante jàmm dana xaw a jafe te li ñu may ak dal ak jàmm ba li tax yàlla indi ñu fi ñu mën koo sottal mooy wàllu mooy li ñu tudde yar ci noonu incha allah ci euh, waxtaan wi danañ laal ci anam bu gaaw lan mooy yar ak lan mooy école danañ ko leeral danañ leeral tamit yarub lislaam ak mooy lan ak lu ko tax a jóg danañ leeral tamit solo su yarub lislaam am ci suñu école l'école bi nekk Sénégal bu ñu waxee école nag dañ ko yaatal mën naa nekk école bu nguur gi moom mën naa nekk école boo xam ne ay jëmm ñoo ko moom muy ay privé mën naa nekk kon public mën naa nekk privé kon école rek mën naa nekk tamit daara li ñuy tuddee daara mën naa nekk tamit li ñuy tuddee école mooy bépp barab bu ñuy jànge rek ci gàttal lañ ci jublu su ko defee kon loolu tamit ñu bàyyi waale ko xel kon ci laytaay dafa yàlla ñu xam lan mooy yar ndax yar mooy jumtukaay bi tax nit nekk nit bu bu doonutoon bu doonut yar nit mala lay dekk ndax nit dafa bokkaleeg mala lu baree baree baree bare euh, yar rek moo koy wutaleeg nit mooy tax mu mën a dund ci wu askan ci jàmm ak salaam yar boobu nag muy éducation wala tarbiya nekk kon mbiru doomu aadama ba doomu aadama ñëwee ci àdduna rek la ànd ak la ànd ak moom euh, li ko tax a jóg nag mooy waajal waajal nit ñi waajal génération yi génération yi ñu waajal leen waajtaay woo xam ne dana mën a tax ñu mën a sottal li yàlla bëgg ci ñoom dana mën a tax tamit seen ak dund euh, mucc ayib ci kaw suuf ñu nekk fi jàmm ak salaam mu doon mbir moo xam nag du sax ci wenn melo day soppeeku na maam ya daan yare bàyyi di ko yare amaana mën naa wuuteeg ni ñuy yare kon génération yi ni ñuy toftaloo euh, yare yi ni ak jumtukaay yi mën na cee wuute barab yi tamit mën na cee jeexital mën na cee wuute barab ku nekk Touba lañuy ñuy séentu ci moom ci ay melokaan ak i jikko mën naa wuuteeg ku nekk ci beneen barab la ñuy séentu ci moom ci ay melokaan ak i jikko moo tax kon barab yi tamit da ciy jeexital jamono yi da ciy jeexital na sunu maam yi daa dunde ak sunu maamaati maam yi amaana ñun euh, mënuñoo dunde noonu ndax jamono ji moo ciy jeexital jumtukaay yi dafay soppeeku yooyu yëpp day tax Euh, mu soppeeku kon yar mbir la muy soppeeku di topp jamono di topp barab day topp jamono di topp barab li ko tax a jóg kon mooy waajal nit ñi euh, ngir ñu gën a doon nit ñu yiw doon ay nit ñoo xam ne dañuy amal njariñ seen réew doon nit ñoo xam ne dañuy mën a soppi seenu askan dañuy bokk ci lay soppi seenu askan ndax aw askan tamit kenn nit du ko soppi kon dañuy bokk ci liy soppi askan wi bokk ci liy sàmm aada ak cosaan yu baax yi bokk ci liy sàmm pas-pas bu baax la bokk ci liy jañ réew mi ngir mu gën a jëm kanam ci wàllu yokkute ci wàllu dund fexe tamit ba li ñuy wax euh, justice sociale mu la adala ijtimaaya euh, maandu am ci biir askan wi kenn ku nekk lay àqam ak lay yëleefa mu mën cee jot ci lu dul benn euh, benn yenn coono yi nit ñi tamit am ak yamoo wala lu bon bon buñ yamoowut tamit jege ci seeni àq ak yenn yelleef ak seeni sañ-sañ muy liberté yi ndax nit yi yàlla da ko sàkk mu moom boppam mu libre kenn moomu ko yàlla rek moo ko moom yàlla wàcce ko ci suuf liberté boobu dañ ko ko war a sàmmal yooyu eh, day mm, eh, moo tax yar jóg yarit mooy tax nit ki eh, mën a nàmm am xelam di xalaat di xalaat di xeltu waaye di fent di gëstu di fent nii ngeen di def di ñëw fii di di liir lu ama am solo la loolu gëstu la gëstu nag mooy nàmm am xel xel mi bu nàmmoo ba ba bañ daas ko bam mu ñaw mooy tax muy mën a fent fu mu nekk nii jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ñu toog fii di wax ku nekk fu gën a sori ci biir senegal ak ci biti senegal di mën a ànd ak ñun jotaay bi loolu gëstu moo tax mu mën a nekk nam mu am xel ak fent moo tax mu mën a nekk ndax jumtukaay yi xëyut xëy rek jóge ci asamaan wàcc ci kaw suuf nite ko xalaat nite ko fent nite ko sos bu nit mënee jóge fii tey ci diir bu gàtt ci barab bii dem ndakaaru dog fekk ko fa ci jumtukaay yi muy jëfandikoo ci dem beeg dikk bi mooy ne xalaat moo fa jaar nit a ko fent waaye bu nit ñi maase woon ñëpp yaccaaral kenn xalaatut kenn fentut bu boobaa di yombe noonu suñ mag ñi suñ maam yi ñu masaa bëgg a tukki ay fas ak jur la ñuy war wala ñuy takk saret def waxtu yu sori ci yoon wi ci diggante boo xam ne sax amaana soriwut waaye nag jumtukaay yi moo tolloon foofu léegi nag da ngay gis koo xamante ni diggante fi mu dëkk ak fi muy liggéey mën naa mat ñeenti téeméeri kilomètre muy xëy liggéey te xëy wàcc di fanaan si waat këram kon loolu gëstu moo ko waral xalaat moo ko waral fent moo ko waral da toog fii di mu nekk fa gën a sori ci àdduna bi ci benn jumtukaay bu ndaw moom nga yor nii rek ngay wax ak moom léeg-léeg jumtukaay bi sax dana tuuti tuutiwaay boo xam ne ku seetluwut mën na ko bañ a gis te bu njëkk suñ maam yeeg suñ maamaat bu ñu masaa soxlaa keneen dañu takk ay saret bind bataaxel yónni ndaw nit sonn ca fas sonn ca waxtu wu baree bari dem ca ngir benn xibaar bi ñuy jottali kon loolu lépp bu bu bu nit egsee fi ñu ci egsi fu mu nekk nii xel moo fa jaar xalaat gëstu moo fa jaar fent moo fa jaar yooyu yu am a am solo loolu xale yii di jàng war nañ koo teel a xam xam ne jumtukaay yi ñuy jëfandikoo seeni moroomi nit ñoo ko xalaat fent ko loolu yar mooy tax mu mën a nekk euh, loolu nag sañ-sañ bi ñuy wax mooy liberté bi nit ki da koy am bu boobaa ba noppi di jël li ñuy wax ay mubaadaraat fardiya mooy initiative di jël ay initiative di gëstu euh, ndax xel loo ko gën a nàmm muy gën di muy gën di ñaw waaye boo ko bàyyee day ker tayal duutoo sax daanaka xalaat dangay mujj tayal léegi nag loolu mooy mën a tax gëstu ak jàng ak yar mooy tax société bi avancé mooy tax société bi tamit am ak dal kon ngeen gis ni ci wàllu matériel. Euh, askanu doomu aadama yi sori nañ ci lool lool lool léegi nag euh, li xaw a indi jafe-jafe bi mooy ñu bari ci seenum njàng ak seenu seeni yarin bàyyiwuñ ci xel diine bàyyiwuñ ci xel diine ndax yii ñuy wax yépp yu ci bari tubaab bi ñoo ko def tubaab bi ak yeneen i nit ñoo ko def waaye ña ko doon def ñoom daanaka lu gën a yéwénal seen dunduk àdduna rek lañ doon def nii waaye xalaatuñ parce que euh, daanaka gëmuñ gëmuñ mën nañu wax daanaka gëmuñ wala buñ gëmee tamit nañ gëmee bokkut ak diine lislaam ma ci misaal su ko defee ñoom ci seeni lekkool ak seeni barabu jàngukaay duñ ci bàyyi xel diine waaw gëstu naal danañ ko jox yitte def ci xaalis bu baree bari nit di xalaat nit am liberté nit nangam waaye la koy xaw a manqué mooy wàllu gëm yàlla gi loolu nag dafay mujj créer vide day tax nit ki euh, ci kaw nii dana bari ay man-man dana bari ay pexe waaye dafay vide parce que amul jokkoo ak yàlla loolu nag doomu jullit moom waru koo def moo tax yarub lislaam am solo lool yarub lislaam nag moom euh, dafa ñëw jël léppi doomu aadama dafay bàyyi xel soxlay doomu aadama ci kaw suuf li muy soxla ci lekk ak naan ak set ak wér ak yeneen ak yeneen loolu la ñuy tudde xaajaat màddiya bàyyiwaale xel tamit côté rooxam digganteem ak boroomam bàyyiwaale xel wàllu xelam ak yeneen yu dul yooyu kon daal yarub lislaam moom dafay daal dafay daal rëdd li jokkale nit ak boroomam nit ak boroomam lan moo leen jokkale lislaam da koy bàyyi xel nit ak moroomu nitam yi lislaam da koy bàyyi xel nit ak fi muy dund muy environnement bi fi muy dund lislaam da koy bàyyi xel nga gis ne kon day jël lépp li lu soxal doomu aadama bàyyi ko xel ci wàllu yaram ci yar bi ci yar bi ak ci njàng mi moo tax lislaam ab yaram moo gën a yaatu gën a mat yar yu bare bare bare bare ndax ñenn ñi dañu yitte woo yaram la di ko defar di ko defar ba boo gisee nit ki xam ne kii daal toppatoo nañ njaramam wala mu toppatoo xelam ba ba xel mi macha allah egg fu sori di fent di nangam nangam waaye dañu bàyyi xel wàllu jaamu yàlla gi jaamu yàlla moom dara su ko defee yooyu nag mooy indi sooxe yi léeg lekk wàll boo ci jël nag sobantal beneen wàll yi nit day sooxe ci côté booba kon bu jikko yi ñaawee euh, jàmm bareetut ci àdduna bi jikko yi doy waar lool lool def ñaawte fi bari lool moo ne dañoo sobantal ak wàll mooy mooy diggante wàll mooy côté côté diina bi loolu nag yar bu mat sëkk moo ko mën a moo ko mën a moo ko mën a lijjanti ci loolu mooy yarub lislaam kon ci wàllu yar mën nañoo wax ni kon mooy mooy mooy taxawu nit ci wàllu matériel ci wàllu yaramam ci wàllu xelam ak ci wàllu ruuxam su fekkee ne mat na mooy tax nit nekk nit te du nekk mala yar boobu nag kenn nit rek du ko def kenn nit mënu koo defal boppam te benn société moomu ko société doomu aadama yépp ñoo ko bokk waaye société bu nekk nag ak fañ jëm ak lañ bëgg ak seeni barab dañ koy bàyyi waale xel ci seeni yar su ko defee ñun ñi ñëpp kenn ku ne kenn mënut a jàngal boppam yar boppam faaw nit ñi dugal ci seen loxo loolu moo indi barabu jàngukaay yi loolu moo indi école moo xam école lañ ko tuddee wala daara li ko indi mooy ne rek jàng ak jàngale ak yar nit ku ne mënu koo defal boppam faaw nit ñi jàppale la ci moo tax ñuy wut ay barab di fa dajale ay nit ñi ñii ñooy jàng ñii ñooy jàngale. moo tax école am kon école mooy lan mooy barab boo xamante ni daal euh, looloo ko tax a jóg léegi nag euh, boroom xam-xam yi rawatina tubaab yi ñoom dañ ci amoon ak wuute wuute boobu nag ci wàllu école solos école école ak lu ko tax a jóg seen wuute mën naa ko tënk ci ñetti xeetu xalaat xalaat bu njëkk bi dañ ne ñoom école daal lu baax la ndax mooy barab bi nga xam ne fi la nit di moome boppam moo koy mooy libéré doomu aadama fi la nit di avancé gën a jëm kanam fi la nit ñi di yamoo yamoo maanaam doomu ko am keek ku ñàkk keek doomu sëriñ beeg doomu taalibe beeg doomu baykat beeg doomu patron beeg yooyu yëpp bu ñu xasee ba ñëw école ñoom ñëpp ñoo yem ñu ne kon école mooy tax nit ñi gën nit ñi yem ñu ne mooy jumtukaay bi nga xam ne tamit ci la ñuy mën a xeexe ak réer ak ñàkk a xam ndax réer askan wu mu nekk musiba la mooy kon école mooy barab bi nga xamante ne daal fi la ñuy waajale nit ki ngir mu soppi aw askanam ñooñu groupe la boo xam ne kon dañ ne école mënut ñàkk ciw ciw askan ca am ca nag gisin wu baax ki ko jiitee maanaam ñu ñu jiitee xalaat boobu Emmanuel Kant Emmanuel Kant yaakaar naa am na ci yéen ñoo xam ne kii nañ ko allemand la woon ñoom loolu lañ jàpp dañuy école moom mënut a ñàkk ndax jumtukaay la boo xam ne daal comme ko yar kenn mënu ko defal boppam faaw ñu kii ko ci nit ñi liñ bëgg mooy moom seen bopp liberté jëm kanam yemo yooyu école moo ko mën a am fu mu ne nii ngeen def nii bokk lu ngeen sol bokk ñëw ku leen xool nii kenn du xam kan mooy doomu kan kenn du xam ko am ku ñàkk ndax yéen a bokk même tissu bokk même couleur ba noppi même qualité bi yooyu yëpp boo ko xoolee ak yemoo ñu ne nag école kon bokk na ci liy indi ak yamo moo tax daanaka école yi ñiy indi ay bulus yi ngeen sol loolu moo ko tax a jóg ci cosaan yamoo fexe ba ki am ak ki ñàkk du feeñ ci barabu jàngukaay bi waaye bu ñu bàyyi woon noonu ñii dinañ indi seen i jasneer ñi indi seen i perkaal ñii indi seen i nàngam ñi indi seen nàngam ci biir soleen wi rek da ngay xàmmee ñi am ak ñi ñàkk ci biir jumtukaay yi ñuy ñëwee école rek da ngay xam ñi am ak ñi ñàkk su ko defee loolu nag ñoom ñu ne école bokk na ci li koy li muy xeex ci loolu kon lu baax la kooku mooy benn xalaat bi beneen xalaat bi daal ne xalaat bu njëkk bee ñu wax daal du dëgg école daal euh, dañuy wax euh, école daal ñi ko fi indi mooy ñu am doole ñi rek ñi am doole ñoo ko fi indi ngir bëgg a gën a not ñi néew doole su ko defee fopp seeni xalaat ak seeni xam-xam ak seeni bëgg-bëgg dëxañ ko ci ay programme dajale ay nit di leen ko jàngal ngir cuub leen def leen niñ bëgg euh, loolu euh, ñi xalaatu ñaareel bi ñu gis ñooñu dañ nekkoon kon école dafay tàqale dafay tàqale ndax ñi am xam-xam am xalaat ay jikko yu ñu jàpp ne mooy yi baax ñu dëxañ ko ci ay programme dem sol ko ay nit yar leen ca mooy nekkoon dañoo cuub nit ñi mi ngi mel na ñu jox la ab tiise euh, tiise bi doon bu weex nga bëgg nga nga bëgg koo cuub damay seet couleur bu la neex rek nga dem wuti wuti poudre bi def euh, kii bi daal di koy cuub mu jox la couleur boobu ñii loolu lañ jàpp ni école noonu lay def dañuy fob xalaat yi ñu jàpp ni mooy yu baax ak jikko yi ñu jàpp ni mooy yu baax ñu dem cuub cu xale yi kon école dafay gën a tàqale ay nit ndax ñi amoon dañuy continuer am ñi ñàkk di continuer ñàkk ak yu mel noonu xalaat boobu ay français ku ñu wax Pierre Bourdieu ak euh, Jean Claude Passeron ñoom am nañ xalaat bu moom ñoom dañoo contre école dañ ne école daal euh, i'adatu intaji tabaxaat la maanaam classe sociale yi am dafay continuer di ko produire dafay continuer di ko di ko fi gën a saxal euh, boo seetloo ñi am ak ñi ñàkk léeg-léeg mën nañoo bañ a bokk ay école ñi am carrément seeni seen seeni doom mën nañ leen yóbbu ci école yu cher yoo xamante ni ñi ñàkk jotiwuñ fa di leen fayal ñu fay njàng njàng mu gaaw prof yi gën a baax ci àdduna ñëw fa ñu leen di fay salaire yi gën a baax jumtukaay yi gën a moderne nekk fa su ko defee xale boobu bu fa nekkee tuuti rek day dem nga gis keneen ki nga xam ne amul doomam mën nay dox juróomi kilomètre ñeenti kilomètre ba juróom benn kilomètre ngir dem école am sonn lool bu demee ni muy sonne ak condition yi muy jànge daanaka pour mu def résultat du yomb ak yeneen ak yeneen ñii ci anam boobu lañ xool ñoom daan école daal euh, dafay iaadatu intaaji tabaxaat classe sociale yi am ci société bi rek lay gën a lay indiwaat da koy photocopier rek tegaat ko da koy photocopier tegaat ko su ko defee doomi patron yi di jàng ci école yu baax yi di continuer di doon di doon njiit yi ñi nga xamante ni seen doole demul noonu benn seenum njàng du egg wala njàng ma du baaxee noonu su ko defee duñ jote ci école yu baaxee su ko defee ña doon jiite seen doom ñooy mujj di jiite seen set sët di mujj di jiite ña daa toppee seen i doom ñooy mujj di toppee seen i sët di mujj di topp loolu beneen xalaat la loolu la ñuy tuddee iadatu intaaji tabaqaat al ijtimaaya loolu daa am ñu gise noonu am beneen xalaatu ñetteel bi ci gisinu école moom def ne xaw naa jege bu njëkk bi waaye dafa gën a tar ñoom dañoo gën a tar ndax xalaatu ñaareel bi moom loolu la wax daf ne li fi nekkoon la ñuy produire xam nga dañ naan euh, léeg-léeg boo boo gisee bu fekkee ne yow da nga ne sama baay ak sama maam lañ doon dund laa bëgg samay doom ak samay set di ko dund mooy ne kon da leen di jéem a yar ci dañ doon dunde ci moo ne bokkuñ ay jamono ak yu mel noonu léegi nag euh, xalaatu ñetteel moom dafa ñëw daane école daal du lu baax ndax tubaab bi moo ko fi indi ca tubaab bi bi muy teg programme bi boppam la ko doon tegal ak gën a mën a not eh, nit ñi gën a mën a not nit nit ñi moo tax mu mu teg ko su ko defee du euh, ñëwee nag day jéem a lëndëmal xelu nit ñi di leen gëmloo ni leen école te saare xam-xam a ko tax a jóg école bu la joxee diplôme kayit woowu mu lay jox day mel ne yaa gën a aay ñi ci des yaa gën a aay ku ko ku ko amul mooy diplôme yi maanaam da lay gëmloo daal affaire diplôme ak di la gëm gëmloo affaire xam-xam ak ca fekk noonu mu wax wax wut noonu da ngeen di gis koo xam ne amul benn diplôme jaarut l'école ca bari xam-xam lool macha allah gis koo xamante ne jaar na école am diplôme ca xam-xam mën naa bañ a demee noonu mais bu fekkee ne école nga jaar dañ lay gëm loolu diplôme su ko defee bu ñuy bu ñuy présenté bu ñu ne diw sàngam nangam nangam nangam tudd diplôme yu mu am rek nga nga amaat ci moom beneen jisin bu bokkut buñ buñ tuddutoon diplôme bi parce que dañoo def ci suñu bopp yi affaire diplôme euh, ñooñu dañ ne école euh, daanaka du lu baax ndax dañ daanaka ñi ko fi teg daal seen intérêt bopp moo tax ñu teg ko fi daal di am cëslaayu ñaari mbir benn bi mooy mooy ni mooy ni euh, ñi ko fi teg dañoo dañ ko jëfandikoo comme jumtukaay pour noter ñaareel bi mooy sunu maam ya sunu maamaat ya sunu maamaat yi ñoom xamuñu woon école. ca moo ne ñu ngi doon dund seeni dund di yar seeni njaboot ca seeni jikko ak seeni aada ak seeni kii ca moo ne réglé woon nañ seeni jafe-jafe jamono kon buñ ñu gëmloo ni ñu école lu baax la ak yu mel noonu xalaatu ñetteel bi ñoom ñoo gën a tar ndax dañoo dem ba ne dañoo war a supprimer école dindi école ci askan wi def li ñuy wax mujtama bila madrasa aw askan woo xam ne école du am di dajaloo ci ay barab naan dañ fay jàng yooyu mu bañ a am ñu dindi ko fi complètement parce que su dul loolu nota dañuy note dañuy dañuy notaate rek ndax tubaab bi moo ko fi ndeg yu mën a euh, loolu xalaatu ñetteel la boo xamante ni euh, ki ko indi Autriche la dëkk Autriche la dëkk euh, ku ñu wax Ivan Illich kon nga gis ne même tubaab yi ci seen bopp sax dañoo wuute ay gisin ci wàllu école ak ban gëdd lañ ko war a jox waaye lu mën a am daal école moom am na école am na loolu lañ mën a jàpp daal lu mën a am ak xalaat bu ci nit mën a am école a ngi am di wéy di am ci sunu réew yi ak ci yeneen réew yi di am ay programme yu ñu fay jàngale am lu ko tax a jóg bokk na ci mooy ni institution la école institution la mooy muassasa la boo xamante ne yara ko tax a jóg jàngale ko tax a jóg Euh, wàllu social moo ko tax socialisation mooy euh, muassasa ijtimaaya wàllu politique tamit ci la politique nag bu ñu ko waxee mooy lépp luy doxee nu àdduna rek ndax ci école bi ci la ñuy joxe lañ lay joxe xam-xam ci école bi ci lañ lay jéem a yaraale ci école bi ci lañ lay jàngale nooy dunde ak nit ñi ci école bi tamit ci lañ lay jàngale tënku ci loi ci yoon ndax école bi dafay am règlement intérieur bu ñu fa teg lii lañ fi sañ lii sañuñ ko fi su ko defee nga jëm caa euh, tënku rôle yi tamit dañ ko fay séddale dañ naan ñii ñooy élèves yi ñii ñooy jàngalekat yi ñii ñooy kii mooy directeur bi ñii kii moo topp ci moom kii moo topp ci moom ñii ñooy surveillant yi ñii ñooy waajur yi kon dañ ko séddale kenn ku nekk la cay wàllam loolu it boo ko tàmmee ci école boo génnee ci pinc mu mag mi ci askan wi il faut que nga tënku ci yu mel noonu xam ne nit ñëpp yemuñ nit ñëpp tamit bokkuñ lu ñuy def nit ñëpp tamit bokkuñ wàccuwaay kenn ku nekk la ko tax a jóg kon école loolu lay doon kon mu muassasa ijtimaai tarbawiya la taalimiya la ijtimaaiya la siyaasiya la ba noppi doon barab boo xam ne day joxe ay diplôme ndax moom euh, boo fa jàngee booy génn dañ la jox luy màndargaal ne jaaroon nga fi luy màndargaal ne jaaroon nga fi mandargaal ni tamit séntu nañ ci yow nga am niveau sàngam moo tax diplôme yi dafay wuute di yéeg di jëm ci kaw diplôme bu la gën a kawe ñu séentu ni nit kooku moo gën a sori ci njàng mi moo ëpp xam-xam école doon jumtukaay boo xam ne tamit ak lu ñu ci mën a wax mooy jumtukaay bi tax sunu làkk di wéy di am ndax njàng mu nekk dañ koy jaaral ci kàllaama ci wolof ci tukulóor ci séeréer ci français ci anglais ci arabe en tout cas amul mel ni njàng mu jaarut ciw làkk il faut ñu jaarale ko ciw làkk kon li ñu wax irit loxawi yi muy patrimoine linguistique bi école bokk na ci li koy gën a saxal ndax làkk bi bu ko kenn waxutoon day dee kon euh, bokk na ci liy tax làkk wi wi suñ maam yeeg suñ baay yi doon wax ñu mën koo wax làkk woowu tamit ñu jaar ci école jotale ko suñuy doom jotale ko suñuy set su ko defee làkk wi di continuer dund dana tax tamit diine ji di continuer am bu fekkee ne nit ñu gëm diine lañ ndax danañ jàngal xale yi diine seen maam yi ak seen bàyyi lii leen doon dund ñu jàngal leen ko toqantal leen ci ñoom it ñu dund ko jàllale ko ci seeni doom muy jàll génération yi génération dana tax tamit wàllu culture bi ak wàllu dundiin wa aada wi ak cosaan wi di di am naka lañ doon soloo naka la ñuy lekke naka lañuy naane naka la ñuy nuyooyee naka la ñuy jëflantee ci suñ biir yooyu yëpp ça dépend ci barab bi yooyu yëpp dañ koy dëxañ ci programme yi di ko jàllale ci nit ñi bu dee jullit ci misaal ñu la boo dee lekk da lekke ndeyjoor dangay wax bismillah te boo dee lekk da ngay lekk ci yem ci sa kanam loolu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale jullit bi buy ja bu bëggee loolu jàll ci doomam da koy def ci programme jàngale ko ko te bu ñëwee ci kër gi bu ñuy lekk su ko defee ñu di ko def ñu gis nii ñëpp dañuy lekkee ndeyjoor ñëpp bala ñoo lekk dañuy wax bismillah ñëpp bu ñuy lekk dañuy yem ci seen kanam duñ cuqat cuqate loolu yonente bi moo ko jàngaloon benn xale xale bi daal dañoo sukk noonu moom moom xale bi di cuqat cuqate ci ndab li fu ne mu yóbbu fa loxo ba mu ne ko yaa xulaam boo léegi boo dee lekk qul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika muy njàngale moo ama ama am solo euh, lislaam tamit dalay jàngal boo dee dugg ci wan ak looy wax boo dee dugg ci néeg looy wax boo dajeeg nit euh, noo koy nuyoo yooyu yëpp ak yooyu yëpp ci wàllu dundin la ak ci wàllu culture dañ koy dëxëñ ci programme yi jàngal ko xale yi xale yi di ko dund su ko defee muy wéy di am kon bu ñu bëggee euh, diine ji tamit di wéy di am fawu ñu def ko ci programme mu njàng yi jàngal leen lan mooy laab lan mooy julli lan mooy woor lan mooy joxe asaka ak yeneen ak yeneen sa digg ak doomu aadama nag naka ngay jëflante ak moom yooyu yëpp ci programme yi lañ koy def kon programme bi tamit dafay tax civilisation dundin yi di wéy di am dëgg na nag dana am ay soppeeku yu ciy am ay soppeeku yu am léeg lekk ndax ci wàllu civilisation yi il faut que avancement di soppeeku ak soppeeku doona fi am bu njëkk suñ maam yi amaana néeg yañ daa dëkk mën naa nekk néegu ñax ba léegi sax am na ci akii waaye dëkkin wi dafay soppeeku ni ñuy organiser kër yi ak espace bi dafay soppeeku néegu ñax mën naa dem ba léegi ngay gis mu dem demi jamono néegu seng yi dem ba mu yàgg nga gis ay terrasse dem ba mu yàgg ngay gis ay air plus yu kenn xamul waaw yooyu xeetu dëkkin wi dafay soppeeku jumtukaay yi ñuy dëkk ngir aaru ci tàngoor ci sedd yooyu yëpp day nekk ci kër yi ci amaana bu njëkk amu fi woon jumtukaay yi kon moom it dafay soppeeku loolu ci wàllu civilisation ci wàllu xadaara bi tamit école da koy porté muy gën di muy gën di jàll fu mu ne am na ñoo xam ne bu ñu leen wanoon image yoo xam ne suñ maamaati maam yaay mbubb yañ doon sol wala nañ doon dundee am na xale yoo xam ne dañuy yéemu ni nii lu ko nit ma ne fekk barab la rek jamono la rek ñun ñi li ñuy dund jàppee ko civilisation bu avancé am na nu muy demee fii ak nangami at ci kanam boo ko wanaatee benn gone danañ yii sama maam di ndekete ku tardé la woon fekk da koo xamul rek ca fekk ñun biñ ci toll ñu ngi jàpp ni ñu avancé lañ amaana fii fu ne ordinateur yee ngeen gis dégg naa ba muy door a sosu daanaka du xaj ci néeg sax léeg-léeg ndax réyee nangam nangam léegi technologie egg foo xamante ni léegi ni mu koy defee dafay yéeme gis ngeen téléphone yi tamit noonu la jamonoy demee wàllu technologie bi nit comme la ma leen waxoon gëstu ak nàmm sam xel ak fent moo tax mbir yi di soppeeku ci yooyu ay jumtukaay rek la kon noonu la loolu tamit école da koy da koy porté waale ndax école dafay soññ nit ñi ci ñuy xalaat di jëfandikoo seen kii di jëndikee su ko defee réew yi tamit di soññ seeni njaboot seeni doom pour loolu di def ay prix ay neexal xale bi gën a aay xale bi fent nangam xale bi nangam ak yu mel noonu su ko defee nit ñi di jongante ci wàll googu civilisation bi diggandikee loolu lépp nag euh, dafa dafa war a dafa war a ànd ak socialisation maanaam fexe ba nit ki gën a rafetal jikkoom di ànd ak nit ñi ca bañ a nekk comme machine rek waaw xam ne nit la xam ne tamit dafa am ay yëg-yëg dafay dund ak ay nit ñu am ay yëg-yëg seeni intérêt léeg-léeg dana fénqaloo su ko defee ñu jéem a Euh, dund dundin wu mucc ayib kon mën nañoo wax ne daal socialisation boobu mooy tanchi al ijtimaai bi mooy tax nit ki jóge ci mala jëm ci ak nite min kaain biologie ila kaainin ijtimaai loolu nag jëflante mooy tax jëflante mooy tax nit jóge ci mala dem ci nite gis nga mala yi ñoom bu ñuy dund ku ëpp ku ëpp sa morom doole rek doole daal ci li ñuy dund waaw ëppante doole rek la bu dee nit ñi nag waruñoo dunde noonu euh, ndax dañoo am xel su ko defee bu boobaa jëfle jëflanteeg doole boobu wurta wurta wurta wëy ndax loolu day indi fitna day indi fitna ci biir askan wi kon ngeen gis ni école dafa samp ci biir askan wi ay renam ca ba noppi bëriwut li nekk ci biir askan wi daanaka moom la yóbbuwaat école waaw euh, loolu la tuddee reproduction euh, su ko defee Euh, mooy tax nit ki mën a dund fi mu nekk wax naa leen sànq ni leen askan wu nekk lañ gëm di ko dund moom lañuy ñuy jéem a def ci seeni njaboot ak seeni sët ak génération yi ñëw jullit ñi loolu euh, la ñu war a def ñoomit ci loolu la ñuy jéem a def léegi nag bu boobaa dey laaj ñu xam tarbiyal islamiya mooy éducation islamique il faut ñu xam ko lu ko tax a jóg bokk na ci mooy tasaare jàmm ci àdduna bi nit ñi gën a am ak dal tasaare jàmm tasaare mbokkoo tasaare dimbalante ci biiru askan nit ñiy dund ci benn askan ci menn pénc dañoo war a dimbalante war a dund ci jàmm ndax bu kenn ku ne jàppee ne jële fi say sa morom mooy tax nga nekk ci jàmm yaa ngi nax sa bopp ndax nit ñi ñoo mën a ñoom ngay mën a jëflanteel say ajo di fajo su dul loolu say aajo du fajo su ko defee euh, lislaam kon loolu moo ko tax a jóg waaye tamit bokk na ci li ko tax a jóg yarub lislaam mooy faj aajoy nit ki ci wàllu ruux ci wàllu xalaat ci wàllu yaram euh, ci wàllu dundiin benn bu si nekk da koy da koy lijjanti loo tax yàlla di ñu wax ni wabtaxi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yàlla lim la jox moo xam alal la moo xam xam-xam la moo xam xel mu rafet la moo xam kàttan la lum la jox rek lum la jox rek nanga ko nanga ko jëfandikoo ci lu lay indil teraangay alaaxira lum la jox rek lum la may rek xamal ne xañ na ko sa moroom waaye loola mu la jox fexeel ba sàkku ci ngërëmu ngërëmul yàlla fexeel ba am ci teraangay alaaxira waaye nag bu mu tax nga fàtte àdduna bu mu tax nga fàtte àdduna su ko defee bu boobaa euh, day tax nit ñi nekk ci jàmm léegi nag yarub lislaam nag moom dafa dafa dafa tënku ci falsafa islaamiya euh, falsafal islaamiya ci yii ci yii la tënku mooy wàllu pas-pas gëm amel aqad yi wàllu pas-pas il faut mu am ci il faut que nit ki gëm gëm yàlla mooy régler digganteem ak boroomam gëm bi mu am tamit amel ijtimaa mooy côté sociale nga xam ne yow donc nekkoo ci pénc mi yaa ki nit yéen fi nekk ci il faut que ngeen jëflante kon il faut que ngeen teg ay norme ay xawaaniin ay lois yoo xam ne kenn ku ne da ciy tënku euh, ba kenn du faagaagal sa moroom mooy la côté social waaye am na barab amil makaani yi su ko defee barab tamit euh, nit ki bu fekkee ne ku gëm yàlla la na xam ne du barab bii mu nekk nii rek fii ñu nekk nii rek taxut waaye bépp barab ci àdduna foo fi nekk tamit na nga fa yóbbaale ndigalu yàlla yi na nga fa nekki nekkin wu woo mucc ayib amil zamani yi mooy jamono temps bi temps bi tamit cib jullit wurta gëm ni àlla àdduna kese la yam temps wu àdduna dafa am temps wu àllaaxira am su ko defee ñaar yépp jullit bi da war a gëm xam ne nii muy dunde fii ci àdduna dana fi jóge demaat feneen ñu di ko tudde àllaaxira mu di fa dunde dundin weneen woo xam ne du am fu mu yam loolu jullit da ko war a gëm bu ko gëmut loolu mooy sooxeloo ak dundam ndax bu jàppee ne lépp àdduna la yam rek léppam da koy jooyal jëmale ko ci àdduna bu faatoo rek perte waaw bu faatoo rek perte su ko defee ñeent yooyu kon jullit bu nekk war na koy bàyyi wàll xel pas-pasam jëflanteem ak doomu aadama yeeg ñi mbokkal environnement bi ci bépp barab nag bu mën a nekk xool barab yi xool tamit jamono yi ci anam bu gën a yaatu nag su ko defut perte nga lay lay daal def su ko defee nag yarub jullit nag moom yarub jullit nag dafa war a dañ koo war a tabax ci ngëm yàlla bu fi ngëm yàlla nekkut euh, dana jafe jullit bi nekk jullit ndax gëm gi dëgg-dëgg moo tax ñuy kii su ko defee xale bi dañ ko war a teel a xamal lan mooy gëm ngëm yàlla yim war a gëm yan la lan la war a gëm ci loola su ko defee ñoo xamal ko ni ko la jiitu ci li muy gëm mooy yàlla wax ko melokaanu yàlla wax ko jëmm yàlla wax ko jëfi yàlla jëfi yàlla loolu ku ko xamut da danga da jàppe yàlla nu mu doonut ndax mën nga koo tëkkaleek doomu aadama wala nga tëkkale ko suñ dund gi fekk du noonu yàlla dañ lay wax ne la ci pas-pasu lislaam ku am la naka jekk ak amam tàmbalee wut fenn yemul fenn kon yow kon da ngay daal di def ci sa xel ne kon yow bi ngay ñëw àddina fekk nga fi yàlla ca da nga génn raat fi yàlla loolu mooy ak nekkam ak amam ñu jàngale ni la yàlla tamit ay jëfam bu nuroog jëfi aadama doomu aadama ciw turit bokkuñ ciw wa bu ñee yàlla dana gis gis-gisub yàlla bokkut ak gis-gisu doomu aadama ndax man su ma toogee fii di gis li ci ginnaaw miir bi gisuma ko ndax daa am lu dox sama diggante sama gis-gis mënut a bëtt miir bi mënumaa xam kër ga fu mu nekk nii lan ma fexew kër gi ma jógee rek maa xam lan ma fexew ndax gisuma ko ca bu dee yàlla nag lépp lay gis heure yëpp ñëpp lay gisandoo kon lu waay di def wala nga di ko wax lu waay di def mi ngi koy gis kon bu bokkaleeg nit tur woowu tamit ni kuy gis la gisam daywa bokkut ak dayoo gisu doomu aadama dégg dégg-dégg bu ñele yàlla day dégg boo ko nattee ci dégg-dégg doomu aadama yaa ngi juum doomu aadama fi ma toll fu mu ne ñii mën nañoo wax te duma xam lan la ñuy wax ndax dégg-dégg bi eggu ci te bu dee yàlla nag lu kàddu suufe suufe ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi kàddu jóg ju ne mi ngi koy dégg kon yu mel noonu ñu jàngal ko xale bi mu xam ko kon fu mu mën a nekkati ci barab bu mu mën a nekkati ci lu muy mën a waxati mu nekk ci mbooloo wala mu beru dana xam ne yàlla mi ngi koy dégg yàlla mu ngi koy gis ñu jàngal ko yeneen ak yeneen bis alaaxira jàngal ko malaaka yi ni ñuy ànd ak nit ñi di bind li ay jëfam yu baax yeeg safaan bi jàngal ko yu ne yooyu bu ko nit ki xase ba xam ci comportement am dafay daal di jël ay matuwaayam xam ne man kat ndekete maa ngi sous surveillance ñu ngi may surveiller fu ma toll nit ki nag bu ñu ko dee bàyyi xel fu mu toll dafa war a bàyyi xel boppam ak jëfam ak waxam fu mu toll su ko defut ëllëg dana ko rëcc loolu solo la soo xamante ni euh, yarub diine da koy am su ko defee kon ñu war a tabax suñuy jëf yépp ci gëm yàlla soo xasee ba gëm yooyu nag léegi yow nit ñi da ngay maslaa ñoom di rafetal sa jëflante ak ñoom ngir mën a nekk ci jàmm ci àdduna waaye da ngay xam ne ñoom yoreeluñ la ak fay du ñoom ñoo lay fay su ko defee yow kon kay fay looy jëf lu nekk na ko ci bàyyi xel ndax danaan la nii nga koy jëfee ma fayee la ko boo ko jëfee nii duma la fay su ko defee kenn mënta forcer yàlla ci mu fay jëf jum bëgguta bëggut a fay wala jëf ju mu wërta fay. loolu bu ko nit ki xase ba xam day daal di noppal boppam jëf ju muy jëf ju nekk da koy tabax ci xam tabax ku ci gëm yàlla ngir mën cee am fayug yàlla ëllëg loolu lu ama am solo la ñu war ko bàyyi e, xel su ko defee bu boobaa sunu dundu àdduna dana dana yéwén dana mucc ayib ca bu boobaa gisin bu baat gàtt rek nga xam ni lépp dañ koy yemale ci suñ jëmm wala lépp ñu yemale ko ci barab biñ nekk dafay jeex lépp duñ ko yamale ci suñ jëmm rek man daal sama jëmm rek moo ma ñor déedéet ndax ngërëmul yàlla mën nga ko mën nga ko am ci kii ci ci nit ñi da ngay jaamu yàlla ci jaamam yi jaamu yàlla ci jaamam yi su ko defee bu boobaa kon damay xam ne ndekete julleek woor rek doyut waaye nag il faut que nga amal njariñ saw askan amal njariñ pénc mi nga nekk ca bañ a dund dund ak bopp sa bopp loolu dafa yomb trop nit ku baax wërtu mel noonu dafa war a amal njariñ am péncam war a amal njariñ euh, nit ñi su ko defee bu boobaa loolu mooy tax xilaafa xilaafatul insaan alal arda yàlla mi tànn doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf ni ko yow yaay sama euh, yow yaa ma teewal ci kaw suuf yowee sama xalifa ci kaw suuf nit ki dafa war a góorlu ci jéem koo mate ci jéem koo mate ndax yàlla dafa mat kuy teewal ku mat nag ci barab noo mën a gën a jege ak mat rek moo gën su dul loolu dangay sooxe la loolu lu am a am solo la loolu nag dafay wane rek kon nii ndekete yar buñ ko nosee niñ ko war a nosee nit ki dafay xaw a sax fàtte boppam ngir jëm ci amal njariñ am péncam looloo tax kilifa yu mag yi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mbooleem lim tegoo woon ci coono yépp jëmmi boppam dong taxutoon waaye aw askanam moo taxoon bu doon jëmmi boppam dong dana yomb waaye askan wi moo taxoon loola mu tegoo woon nag ñu téye ko lu mat fanweeri at ak yu tegal teg ko ci ay loxo amul jàmm xañ ko jàmm yóbbu ko fu ne ci at fu ne daanaka ay Gabon Mauritanie Thiéyène ca Jolof yóbbu ko njaareem téye ko fu fukki at ak juróom yoo xam ne mayuñ ko mu génn ñëw Touba sax mayatuñ ko ko yooyu yëpp mu nangu ko tegoo ko yooyu yëpp aw askanam moo taxoon waaye bu doon jëmmi boppam donc dana yomb lool mu lijjanti ko waaye kii su ko defee loolu nag kuñ ne kii mooy sa mooy sa royuwaay kii mooy sa maam kii mooy sa sëriñ kii nangam moo taxawal dëkk bii nga nekk nga gis dëkk bi nekk ñaareelu dëkk ci Sénégal fu mu nekk nii te bi mu koy kii ay garab moo fi nekkoon ak àll kon da xam ni yaafus taxut lii fi am lii am am fi. su ko defee yow boo ñëwee da ngay fexe ba dolli ca dara da ngay fexe ba dolli ca dara ndax leen bu amutoon dëkk bi fam fañ ko fañ ko euh, bañ koy sanc na meloon noonu nga koy fekk waaye boo ko fekkut noonu rek xamal ne ay nit ñoo ci indi leen su ko defee yow it jamono bi nga fiy jaar nga fas yéenee bokk ci ñi fi indi leen loolu nag li koy mayee mooy jamono yi ñu toll ci jàng ñu jox yitte njàng mi jox yitte yar bi di xalaat. ngir ëllëg si biir fi ma fekkoon sama pénc fi ma fekkoon sama kër samay rakk samay nàngam ma fas yéene ba indi fi sama touche ma laal ci bu ëllëgee ñu ne diw sàngam ne moo fi indi woon nàngam moo fi defoon nàngam moo fi nàngamoon nàngam taarix di la tudd ba faaw sëñ Tuubaa noo tudd diiney senegal diiney lislaam bu senegal ci tuddoo ko ci bu fekkee ne wax dëgg rek la diiney lislaam bu senegal mu ne su cee wax ci doo ko tudd sëñ euh, euh, Cheikh Omar munoo tudd diine lislaam bu Sénégal ci tuddoo ko ci Seydina se se sëñ sëñ Alaaji Malik radiyallahu anhum ñoom ñëpp munoo tudd diine Sénégal ci tuddoo leen ci diine lislaam bu Sénégal ci tuddoo leen ci ak ñeneen ak ñeneen ak yooyu yëpp kon kenn ku si nekk jamonoom da ca def kemtulaayu kàttanam ba aw turam des fi ñun nag bu fekkee dañ fay nar a jaar nii rek suux nii rek nga xam ne saa bu ruugi rotee moom kenn dutu waxati say wax ndax bàyyi woo fi dara mooy ne jaar ci àdduna dana dana yaafus lool kon loolu dañ ko war a moytandiku su ko defee kenn ku ne fas yéene xam ne moom mooy penc mi loolu nag di am lu am solo kon loolu mooy indi tomb bu mujj mooy ahamiyatu tarbiyal xuluqiya solo soosu euh, euh, foo ko takk weesu na ko foo ko takk rek weesu na ko kon aw askan la ñuy soppi aw askan la ñuy jëmale kanam jëmale googu kanam nag ci sunu école Sénégal yi da ngay gis ne kon ndekete yar bi daanaka mën nañoo wax ne amu fa ndax dañuy jàngale nii rek lu ci ëpp dañuy jàngale rek dañuy sol xale bi nii rek euh, ba tax na taxawaay bi ñu war a am ci wàllu yar bi xaw a des des googu nag mën nañ koo gis ci anam yu anam yu wuute mën nañ koo gis ci ay màndarga daal lu koy màndargaal bokk na ci li koy màndargaal yàqute gi ñaawteef yi ni mu tasaaroo ci biir Sénégal law ba dugg ci biir ëttu école yi ëtti barabu jàngukaay loolu dangay ngay xam ni kon euh, euh, yar bi sooxe na yar bi sooxe na xam-xam be mën naa am mi ngi fi waaye li tax ñuy wax xam-xam dafay nekkul ndax xam-xam bu àndut ak njub du xam-xam sëñ Tuubaa radiyallahu anhu loolu lay wax xam-xam bu àndut ak ragal yàlla du xam-xam ak lu mu bari bari kon du rek dangaa bari loo xam danga am culture générale dangaa mën a tari ba tax ñu mën laa tudda xam-xam waaye loolu nga xam danga ko war a soppi def ko ay jikko di ko dund yow boo xamee ni ñuy jullee ci julliwoo sa xam julli amuñ njariñ boo xamee ni ñuy jàppee ni ñuy laabee ni ñuy sangu farata sangu set ci taxut nga def ko ban njariñ la lay amal boo xamee ni ñuy génnee asaka nga am alal ju lew war caa mën a génne asaka ca génne woo ko xam nga ban njariñ la lay amal noonu lañ koy mën a toppee boo xamee ni woore xam wàccuwaay woor ci dund ak jullit bi ca taxut ngay woor ca amoo ca ban xam nga ban njariñ la lay amal noonu lañ koy mën a toppee kon xamuk neen nii rek taxut ñuy wax waaye xam gi ginnaaw bi mu nekkee ay xalaat da nga koo war a dund nag léegi soppi ko ay jëf soppi ko ay jëf mu ngi mel ne ci sa téléphone bi nga am ci xaalis jamono bi nga ci amee xaalis ñu ne la am nga ci dix mille francs ci misaal laaloo ko ci sa yëg-yëg xam nga ne am nga xaalis waaye pour nga jariñu ci nooy def dangay dem il faut nga génne ko li fekk mi ngi des ci téléphone bi il faut nga génne ko pour mën a jariñu ci xaalis bi boo demee bëgg a jënd dangay dem génne ko di laal aw kayit joxe ko wala boog nga ne diw sàngam am nga compte naa nga mun la waaw ngeen jëfante ay téléphone nga nga yó yónnee ko ko ci mais mais am naa dix mille mi ngi ci sama téléphone ci mënoo koo jariñoo est-ce que am na njariñ amul benn njariñ parce que ci sa xel rek la waaye du yàgg-yàgg ba nga jariñoo ko noonu la xam-xam mel xam-xam tamit fekk soppi woo ko ay jikko amul njariñ ay bagage la rek la alxuraan sax noonu la koy nuróole mbaam mu sëf ay bagage ay téere téere yi mën nañoo am valeur lool waaye du yàgg yàgg ba mbaam jariñu ca noonu la nit war a moytandiku maanaam di jàng ngir jàng di xam ngir xam nii rek ca soppiwut sa dara soppiwut sa waxin soppiwut sa jëfin soppiwut sa doxalin bu boobaa loolu amul benn njariñ loolu it kii kon yàqute yi bari ci sunu pénc mi bari ci sunu école bi dafay wane ni yar bi sooxewu na ca war nañ cee jógaat jëfandikoo doole ji li ñuy tudde violence onf ni mu mel sunu barabu jàngukaay yi war nañ koo bàyyiwaale bàyyi xel euh, ñun ñëpp seetlu nañ ci at yi weesu rek ci lu tollook at ñaari at école bu tëj ay élèves yu yàqati seeni classe di lakk kii ya nangam ni dañoo bëgg di kontaan loolu jàpp nga ni yëfi nit la yow école bi ngay jàngee école tëj na rek tëj na nga war a bër nga dem di lakk bagage ak di tasaare kayit yaag di taal ak di nangam ngir ni da ngaa bëgg waaye léegi bu déwénee boo ñëwee doo fa fekk banque doo fa fekk kayit doo fa fekk nangam ci yooyu yëpp mënut a ñàkk ci sam njàng dañ koy wutiwaat rek léegi wane wane contentement ba tax ngay yàq loolu ban njariñ la am ci loolu yëpp seetaan na gis nañ ko lu toll ci at wala yu mel noonu gis nañ tamit ci école yi. Euh, maanaam loolu ci loolu mooy lu ñëpp bokk ndax yow école bi li nga fi fekk ci ay jumtukaay sa baay jënd ko sa yaay jënd ko yow it jëndoo ko sa nijaay jënd ko maanaam moomeelu ñëpp la léegi li ñëpp moom ngeen àndaat yàq ko ci école bi ca dara lu ko waral lu ko jar amu fi bu ngeen kontaan bu ngeen kontaanee kay cotiser leen ngeen dem jëndum xar ngeen def ko yëfi faaleen ak yëfi jengeen afra ko ngeen toog xéewlu du moo gën yàq bagage école bi waaye loolu mooy kon mooy ni xel nekku fa xam-xam bi tax ñuy wax nekku fa loolu gis nañ ko ci suñu école yi gis nañ tamit ay jëfandikoo doole yu bon sax ci lu toll ci at yaakaar naa ni yéen a ngi fàttaliku vidéo boobu doon daw ci whatsapp bi élève bu toog ci kaw élève di ko dóor dóor yoo xamante ni ci kanam gi ci nàngam gi moroomam élève di ko filmer xale boobu sax dañ ko mujjoon yóbbu tribunal àtte ko violence bu bu yéeme doo xam xale naka la mën a violent noonu naka la mën a soxoree noonu fu mu jëlee soxarte googu dalay jaaxal ci xale ñaari xale yu ndaw moroomam di filme di kii dañ leen jàppoon yóbbu leen loolu da ngay xam ne kon école bi am na lu fi jox si loo xamante ni euh, amu fi woon démb kàddu yu ñaaw yu ñaaw yu yéeme. amu fi démb ñàkki teggin ñàkki kersa col gu bon ci góor ñi ak ci jigéen ñi loolu amu fi démb te dafa jox si école bi ngeen seetlu ni élève buy jéem a gaañ jàngalekatam xool siège bi mu war a toog mu def fa pont pour bëgg bu egsee mu toog ci xoolu xelu xelu mala boobu xelu coxarte googu loolu lu ko indi école ci loolu gis nañ ko gis nañ ko fii ci suñu école Sénégal yi yooyu ak yeneen yoo xamante ni mi ngi xew ci école yi yoo xam ne dangay yow dangay ngay mën a da naan ñun suñ suñ suñ suñ penc mi léegi daanaka ay mala yu daje rek lañ ay mala yu daje doo xam yëfi lan la élèves yi it muccuñ ci ndax ñoom it ñi ngi subir ñi ngi leen di fitnaal ci ay dóor rek ci ay xas kàddu yu ñaaw élève boo defloo dara mënu ko nga sànni ko kàddu yu ñaaw ba mu laalaale aw askanam sax loolu lu ci wuti ndax moom bu xamoon du ñëw école ñàkk a xam moo tax mu ñëw école baa juróom indi ko fi kon yow mi koy jàngal yow yow jàngalekat bi war nga am ak dal ndax boo ko taniwul daanaka jëratul nga di ko téye mais gis nañ ay élèves yoo xamante ni tamit dañ leen koy kii ay barabu jàngukaay yoo xamante ni dañuy jat dañuy tënk dañuy tënk ay euh, ay xale jatañ am na ci suñu daara yi dóor dóor yu metti ba ba loraanga di ci juddoo am na ci suñu daara yi suñu barabu jàngukaay wàllu jëfandikoo jëfandikoo xale yi ci anam bu bu bu tegginuwut am na ci suñu barabu jàngukaay yi yooyu yëpp dañ koy dégg ci suñu kii yooyu yëpp amu fi amu fi wàccuwaay amu fi place li ko waral rek mooy njàngaleem kese lañ def ba noppi sooxeloo yar bi loolu nag feeg dañut suñu école bi du mën a joxe résultat bu baax sëriñ Tuubaa artu woon nañu bu yàgg sëñ Basiiru tudd na ko fa kasaratul ilmi bi xayri adabin jaalibatun ilal wa taabi tubaab bi sax xam nañ ko ba am na ko ko ci wax ci ñoom wax ni science sans conscience nekk ruine de l'âme xam-xam bu àndut ak yëg-yëg ak ak njub ak jikk yu rafet euh, dafay dégâts ay dégâts rek lay indi ay dégâts rek ndax bu boobaa léegi nit ki xelam rek lay topp ak bëgg-bëggam waaye amatul jikk yu baax looloo tax ngeen di gis avancement bi développement technologique bi am ci sunu askan ci ci réew yi tamit am na ci développement yoo xamante ne dafay gën a yàq da ngay gis ñoo xam ne wut bénéfice àdduna ci xaalis jaral na leen euh, sànq aw askan defar ay ñam yu bon defar ay médicaments yu bon defar ay ngànnaay defar ay nàngam ci yoo xam ne leer na leen yow sa bénéfice bopp rek nga cay seet dugal ko ci marché bi jaay ko lum mu la indil ci bénéfice rek dana xañaat askan wi lu ko ëpp ci xaalis ndax dana yàq wér yaramu nit ñi Euh, xañ leen jàmm ci wér-gi-yaram bu amul ciw askan faju ji day daal di am ci loolu tamit dafay laajaat beneen kii moo tax ñiy jaay lekk yu bon yi ñiy jaay garab yu bon yi ñiy jaay ay ngànnaay ngir seen euh, ngir seen euh, bénéfice bopp mooy ne amatuñ moral xam nañ ñi lii baaxut ci askan wi baaxut ci nit ñu jaay ko nit ngir bénéfice lekk seen xaalis daal dem seen yoon nit ku lu ko dal affaire am la loolu mooy manque de conscience moo ni jikko ju baax amatu fi lislaam jooju nag yar bu nag yar bi lan la ñuy indil lan la ñuy apporter lan la ñuy indil mooy li ñuy tudde ixsaan al ixsaan xam nga ne lislaam ñetti xaaj la mooy imaan islaam ixsaan ixsaan dafa am solo lool mooy ngay bàyyi xel yàlla ci lépp looy def walla nga di ko wax xam ni boo ko gisutit moom mi ngi lay gis mi ngi lay dégg ca lépp loo jëf danañ la ko fay jëf du mooy boroom innamal amalu binniyat jëf du mooy boroom loolu nag ihsaan moo koy def ci nit su ko defee jamono bu nekk rek ngay teewal yàlla ci sa kanam teewal yàlla ci lépp looy def fil majaali taabudi ci wàllu jaamu yàlla julli yeeg woor yeeg génne asakaak dem màkkaak ñaan ak tudd yàlla ak yépp boo koy def nga teewal yàlla ci sa kanam mooy tandiku njistal am ci mooy tandiku ñuy wax ojj bu yéem sa jëf am ci ndax yooyu day yàq jëf bu ci raxsee rek jëf jooju moom coono nga ci am waaye doo ci am fayu yàlla su ko defee boo xamee loolu nag kon lépp luy tax njistal di am ci say jaamu yàlla wala ojj bu muy yéem sa jëf bu boobaa da nga koy sorele ci wàllu jaamu yàlla gi ci wàllu sa jëflanteeg doomu aadama yi ihsaan mooy mën a tax nga xam ni wax ak jëf ju nekk muy jóge ci yow danga caa war a bàyyi xel àqi doomu aadama yi ni ngay bëggee ñu bàyyi xel say àq yow ak say yelleef su ko defee lépp luy yàqute nga moytundi ko doo yàq doo soññee ci yàq doo def luy tax ak yàq am ci muamalaat yi sa jëflanteeg sa diggante doomu aadama yi sa relation kon ihsaan dafay rafetal sa jëflanteeg sa digganteeg doomu adama yi du yam sax ci doomu aadama ba ci mala yi yépp sa jëflante day raflan da nga koy rafetal xam ne borom mi bakkan lañ ca bakkan boobu sàkku sànku euh, sàkkoo ko yàlla moo ko sàkk sa sa liggéey fil majaalil mihani sa liggéey ihsaan dafay tax mu gën a taaru boo dee élève boo dee jàng ihsaan ngay teewal yàlla ci sa kanam moo tax boo bu ñu la joxee euh, boo nekkee ci examen wala ci compo nga teewal yàlla ci sa kanam bañ a def li ñuy wax riche di tricher bu ñu la laajee boo xamee nga wax boo xamul nga xam ni xamoo ca bañ a tricher ndax tricher nax sa bopp nax saw askan la da ngay nax sa bopp nax saw askan ndax yaa ngi nax sa bopp wane ne xam naa ca xamoo. yaa ngi nax ki ngay jëflanteel wan ne ko xam naa sama tontoo ngi ni baax na ci fekk danga nga koo tricher mooy ni teewaloo yàlla ci sa kanam loolu boo ko dee def di dox di avancer bañ na jox la diplôme ne la am yow mi jàpp ne xam nga fekk xamoo dara tricher moo la exceloo fii kon boo def docteur boo dee ay dégâts rek ngay def ndax xam ba nekku fa da nga doon tricher bañ jox la kii bi bu boobaay loo mën liggéey booy mën a def doo ko mën a rafetal ihsaan mooy tax. liggéeykat bi moo xam docteur la moo xam chauffeur bi la bi dawal oto yor ay nit moo xam ki nekk ci biroom la moo xam ki nekk ci barabu liggéeyukaay yeneen yi moo xam ki nekk ci classe bi la moo xam ki nekk ci usine bi la moo xam sàmm bi nekk ci àll bi la kenn ku ci nekk day teewal yàlla ihsaan mooy tax nga teewal yàlla ci kii boo yoree sa jur di ko sàmm ci àll ba kenn nekku fa yàgg yàlla rek ak jur gi ab tool nekk nii nga mën caa dugal jur gi nga nga teewal ihsaan ci sa kanam xam ni tool bii toolu diw sàngam la àq jàmbur la ci ay nit ñoo ci wékk seen yaakaar def ci seen coono kon duma ci dugal sama jur donte kenn nekku fi loolu ihsaan moo koy maye jàngalekat bi ci kanami ndongaam ci kanami élève mu teewal yàlla ci ci xam ne dañ koo dénk ay xale xale yi yaakaare askan lu weneen mu bañ leen a nax jàngal leen jox leen seen àq jox gëdd liggéey bi xam ni ëllëg ñoom ñooy tabax kii noonu lañ koy mën a toppee ci ñëpp chauffeur bi bu yoree ay client di dawal mu teewal yàlla xam ni ay dundu doomu aadama la kii ci ñii ci yaakaaru askan wi lañ mu mu jël ay matuwaayam xool otoom ba yépp baax balaa muy dem ca buy dawal tamit mu ànd ak yar ak teggin ca bañ a def dara luy nëxal am xelam lu koy faayloo yooyu yépp ihsaan la ca bañ a topp rek bénéfice àdduna bénéfice àdduna dafa tuuti ci li ab jullit ndax du ndax boo ko dendaleeg fayag yàlla dëddu dara dañuy wax ne sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dadaa wax ni képp ku xeeb baatub jazakallahu xayran yàlla na yàlla fay képp ko ko xeeb rek dafa fekkewut fayag yàlla ame waaye saa bu yàlla fayee nga gis fay ga doo xeeb yàlla na la yàlla fay xam ne fayag yàlla yemut ak fayag doomu aadama loolu nag ihsaan moo ñuy jàppandal yooyu yëpp ndax xam mbir yi ak jëfe ko jëfin wu lay taxa nga jariñu ca ëllëg ñaari mbir yu bokkut la ñaari mbir yu bokkut la ihsaan ku ko amut moom mooy àdduna moom daanaka jàppal ni defoo fi dara daanaka defoo fi dara mooy ni sóoraale woo yàlla ci sa dara yooyu nag ay mbir la yoo xamante ni warees na ko bàyyiwaale xel teel ko def ci njaboot gi ngir euh, tëj tëj nag euh, kon dañuy wax rek ci gàttal ni kon yar rawatina yarub lislaam am na ay njariñ lool te bokk na ci rek mooy dafay tax yàqute gi yàqute gi nga xam ne moo am ci suñu askan bu fi jógewut tamit ñu gën koo wàññ bu baax a baax alfasadul xuluqi dafay tax violence bi muy onf bi jëfandikoo doole ay kirim yi am dafay tax mu wàññeeku bu baax a baax bu fi jógewut tamit dafay tax kaaraange akuk dal am ci askan wi ci pénc mi te bu ñu waxee pénc mi nag école bi day nekk ci biir ndax école bi lañ fay fekk daanaka mooy li nekk ci biir pénc mu mag mi ndax ñi nekkoon ci pénc mu mag mi ñoo dajawaat fële rek dañ ko photocopier rek yóbbuwaat ko fële moo tax ñu naan école société bu ndaw la ñépp a fay nekk doomu ñépp a fay nekk doomu sàmmkat bi doomu chauffeur bi doomu jàngalekat bi doomu sëriñ bi doomu nangam bi ñëpp fay dajawaat ñu nekkoon kon école bu ndaw bu mag la société buñ copier copie bu ndaw rek la photocopier bu ndaw rek la maanaam loo fekk école ba rek xamal ne dafa nekk ci penc mu mag mi bu nekkutoon ci penc mu mag mi du fa du fa nekk kon nag buñ fexee ba yar bi euh, ñu dugal ko ci lekkool bi euh, mu mucc ayib defar ko bu baax a baax soppeeku am foofa. soppeeku googu mooy walaat ñëwaat ci pénc mu mag mi ndax ñi nekkoon ci école bi ñooy mujj doon mag tasaaroo waat ci pénc mu mag mi su ko defee eh, indiwaat fi jikko yu baax yooyu moo tax kon njàng mi eh, climat bi bi ñuy jànge jaww ji ñuy jànge mën a doon jaww ju baax ju amul dal ndax boo nekkee ci barab ca sa xel dalu fa njàng ma eh, mën naa bañ a demee noonu mën naa tax tamit ëllëg ñu am ay cadre ay boromi xam-xam ay kilifa yoo xam ne ñooy saytu sunu mbir ëllëg cadre yu yor réew mi bu boobaa yenn jikko yi ñu dégg ci yenn kilifa yi fu nekk nii ci ñi jiite réew mi bu boobaa duutu amati kilifa gu ñuy dénk lu ñëpp bokk mu këppoo ko bu boobaa dana jeex walla dana wàññeeku bu baax a baax a baax kilifa gu mag a mag ñu dénk ko ay ndombay tànk ci biir réew mi ñu di ko tudd di tudd soppi xaalis bu boobaa bu dana fi jóg wala dana wàññeeku bu baax a baax kilifa gu mag a mag ñu dénk ko ay ndombay tànk ñu di ko tudd ci tudd siif ak jóg yu demee noonu yooyu bu boobaa dana wàññeeku noonu lañ koy toppee yoo xam ne bu boobaa suñuy njiit daal xar kanam bii ñu am fu nekk nii bu dañu tamit dana wàññeeku bu baax a baax ndax dana fekk ñu waajal xale yi war a jiite ëllëg bu boobaa euh, nit wax kilifa wax ba noppi waxaat lu ko dindi ci menn mbir mi day dañ mooy li ngeen di tuddee vaar bu boobaa day dañ kon bu boobaa daal danañ am ay njiit yoo xamante ne wax dëgg yàlla xaram xar kanam bii ñu am fu nekk nii ci suñu njiit du ñëpp nag waaye xar kanam bii gën a fës moom bu boobaa dana wàññeeku bu baax a baax kon daal bu boobaa suñu dund mën naa gën a amuk dal ci it ñun niki ay jullit mën nañoo gën a am yaakaar ma yërmande yàlla ak ngërëmam bu àllaaxira ndax dana fekk ngëm gi nekk fi ihsaan nekk fi jikko yi rafet nekk fi euh, su ko defee ñu mën a am yaakaar ci yërmande yàlla yaakaar naa ne loolu daal xëy na mën nañ ko tënk xawa a téye kàddu gi foofu di jégalu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne xëy na rot na fi ci ay kàddu ca dëppawut ak euh, nañ ko bëggee woon wala ni ngeen ko bëggee woon yéen di sant bu baax a baax di dal di rafetlu jotaay yi di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaam wa <clears throat> jërëjëf sëriñ Cheikh euh, waxtaan wi am na solo lool jot na sëkk te leer na nañ ñi tamit nag wax dëgg yàlla liñ ci doon séentu lépp ci li taxoon ñu tànn ko mbokk yi fi teew yépp yaakaar naa bàyyi nañ xel ci ne matale nga ko ndax dafay tomb bu am solo boo xamante ni bii jamono daf koo laaj. moo tax ñu ngi lay sant bu baax a baax ci anam bi nga xamante ni bi noonu nga ko jooxee mu doon anam boo xamante ne bi bu yomb la boo xam ne ku koy topp rek yaakaar naa danga dégg li muy wax te yaakaar naa danga ci mën a jariñu kon yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp muy tem tomb bu am solo boo xamante ne bii bu ñuy fàttaliwaat rek sëriñ Seex mi ngi doon waxtaanal ci solo soo xamante ne bii yar jikko yi ci suñu daara yi am na ko solo yarub jikko solo sum am ci suñu daara yi loolu mooy tomb bi nga xamante ne bii ci la ñu doon waxtaanal euh, ñi nga xam ne xëy na euh, topp fekk yéex na ñoo topp waxtaan wi wala ñi nga xamante ne bii ñoo teewoon bu ñu leen ko doon tënkalaat ci gàttal rek dañuy wax ne tomb boobu Serigne Cheikh bi mu koy leeral dafa njëkk ñëw ci leeral ñu lan mooy yar lan mooy dëgg dëgg yar mu xamal ñu ne doomu aadama bi suñu borom bu ko bindee daf ko bind ak ay disposition ay istixdaadaat yoo xamante ne bi euh, fokk disposition disposition yooyu doomu aadama bi yor ñu jël ko yar ko jubbanti ko teete ko ba nga xamante ne bi ca lay àggee fa nga xamante ne bi fa la ñu bëgg mu àgg fa te loolu day dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yu yunasiraanihi aw yu yumajjisaanihi doomu aadama bu judd bu nekk rek da ngaa juddu set wicc la nekk ci yow dañ koy def ci yow kon doomu aadama bi bu juddoo nuñ bëgg mu mel ni rek société bi mooy fexe ba mel nam bëgg loolu moo tax sax ñu bari ci borom xam-xam yi xamle yar di wax ne at tarbiya hiya taxyiru suluk maanaam éducation yar mooy nga fexe ba soppi comportement doomu aadama bi soppi comportement boobu nag mën naa doon ci ñaari anam mën naa doon ci anam boo xamante ne bi anam bu baax la mën naa doon ci anam boo xamante ne bi du anam bi gën loolu moo tax sax bi mu agsee ci yar bi nga xamante ne bi noonu la amee solo te waajur yi ak parents yi mënuñ koo def def ci seeni doom leeral nañu ne loolu moo sabab école sosu ndax ngir mottali mission boobu nga xamante ne bi waajur yi ak kilifa yi ñoom ñoo ko waroon a taxawee ci seeni doom leeral nañu tamit école boobu bi mu sosoo boroom xam-xam yi rawatina tubaab yi gis-gis yi ñu am ci école ñii gis ne lu baax la ñii gis ne du lu baax loolu tamit leeral na ko te lañ cay jàpp rek mooy école moom ca ña wax ne baax na ak ca ña wax ne baaxut mi nga aju ci objectif yi tax ñu ñu ñu tëral ko ndax ñi xam le éducation wax ne yar mooy soppi do jikkoy doomu aadama ji jikkoy doomu aadama ji mën nañoo jël école def fa dëxëñ fa programme boo xamante ne bi jikko ya ñuy def ci moom du doon jikko yu baax waaye mën nañoo tamit jël ay jikko yoo xamante ne bi jikko yu baax la def ko ci moom kon école ak baaxam ak bonam mi ngi aju ci objectif yi nga xamante ne bi moom lañ ko tegal loolu moo tax nag bi mu agsee ci xamal ñu dëgg dëgg yarub lislaam nga xam ne mooy solo su waxtaan wi mu xamal ñu ne lislaam moom ab yaram solo gim am solo la koy wane mooy matale gim matale ndax bu ñu xoolee yeneen école yi seenub yar ak nañu gisee éducation dafa am benn pàcc rek bu ñu jël ci doomu aadama jàpp ne moom rek la ñu war a yittewoo wala ñaari pàcc rek te mooy xel mi ak yaram wi nga xam ne xel mi dañuy fexe ba wut ay programme yu koy jox xam-xam bu baax a baax xam-xam yoo xamante ne bi dana mën a nàmm xel mi yaram wi tamit ñu fexe ba di ko tàggat di ko wutal lu mu lekk waaye nag la ci ëpp solo te mooy wàllu ruux gi wàllu jikko yi ñu desal ko gannaaw loolu moo tax tarbiya islamiya muy éducation islamique bi mu ñëwee li mu gën a ràññu ko mooy shumuliya matal gi matale nga xam ne boo ko doon comparé ak yeneen eh, gis-gis yi nga xamante ne bi du gis-gisu lislaam da ngay daal di gis ne kon lislaam li mu ràññi ko mooy yaram daf ci maanaam buy yar daf ci bàyyi xel lool wàllu jikko te yeneen école yi ci des nag duñ bàyyi xel wàllu jikko loolu moo tax problème bi yëpp li ko indi ci yenn daara yi buñ ko seetloo problème mu mooy dañ faa dugalut li ñu tuddee at tarbiya islaamiya te tarbiya islaamiya mooy lépp ndax yarub lislaam bu amut nit ki dañ koy defar ba mu mel ni euh, maanaam mu mu ne ñum mu noonu waaye buñ xoolee biir gi lépp aw xottu lay doon ndax lay doon mu doon lay tax mu doon aw xottu mooy ñàkk gum ñàkk yar ruuxam ñàkk gu ñàkk def ci moom ay valeur yoo xamante ne bii valeur la yoo xamante ne bi dana bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala ndax loolu moo ci jiitu yarub lislaam ni muy njëkk def ci doomu aadama bi mooy def ci moom pas-pas pas-pas boo xamante ne bi dana bàyyi xel ne am na ku ko sàkk koo kii ko sàkk moo ko tiim di ko bàyyi xel ci lépp bu ko defee bu boobaa lépp lu muy def dana ci bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala moom yi buñ ko defee nag daara yi nga xamante ne bi ñoom amuñ yar boobu dañuy daal di gis ne kon ay jafe rek moo fay moo fay am wax na lu baree bari ci li tax yar jóg mooy ci wattu uh, maanaam cosaanu doomu aadama yi wattu làkk doomu aadama yi tax yamoo am ci biir doomu aadama yi liberté am ci biir doomu aadama yi yooyu yëpp buñ ko xoolee ci gis-gisu yenn boroom xam-xam yi moo tax yar jóg waaye lislaam nag moom gis-gis bi mu am ci yar te mooy gis-gis bi mata bi matale mooy moom bu ñëwee yooyu ñu wax yépp daf ko cee dëxëñ waaye daf cee boolewaale nag yarub jikko moo tax lislaam doon lu am solo ci eh, wàllu éducation ñu gis ne kon bépp daara bépp jànguwaay boo xamante ni bi desal na gannaaw yarub lislaam boobu dañuy daal di gis ne kon eh, daara jooya am njàng rek moo fay am waaye bu boobaa ab yar du fa am bu fa yar di am tamit ca wàll ya muy gën a jëm wàll ya muy gën a yittewoo yar la boo xamante ne bii individu ba fay génnee bu génnee du mën a tabax ab société bu baax ndax lépp lu mu tabax moom mooy wëlbati waat wëlbati ko waat màbbalaat ko boppam te loolu yaakaar naa feeñ na ci yenn daara yi feeñ na tamit ci yenn produit yi nga xamante ne bi daara yi moo ko génnee ndax lislaam li muy jëmbat ci nit ki bu koy yar mooy day def ci moom jàmm day def ci moom dimbalante day def ci moom euh, maanaam wàll yépp mu woo ko defar ko ba mu mat sëkk ba nga xam ne bu génnee dana doon ba individu bu mat sëkk boo xamante ne bi bu nekkee ci société bi defar rek mooy doon yitteem waaye yàq du ko yittewoo bu école ya nga xam ne nag yittiwoowuñ lislaam ñoom wax na bi mu ci agsee phénomène ya nga xam ne moo fa fés te mooy wàllu ay ñaawteef wàllu violence wàllu yàq li nga xamante ne bi moom lañ bokk wàllu ñàkk citoyenneté wàllu ñàkk respecté ñi xamante ne bi ñoo lay jàngal daanaka moo gën a fés ca daara yooyu te la ko sabab nag mooy dañ faa dugalut éducation islamique bi nga xamante ne bi mooy def ci doomu aadama jikko yu baax ndax jikko yu baax naka lislaam gisee ak yeneen écoles yi nañ ko gisee dañoo bokkut yeneen écoles yi am na ci ñoo xam ne seen gëm-gëm mooy doomu aadama bi daal nañ ko jàngal ne ko al wasilatu tubarrirul gaaya maanaam doomu aadama bi lay objectif am bépp moyen bu ko ca mën a àggale rek loola lu baax la loola nag doon mbir mu doy waar moo xamante ne bi gis na génnee ca daara yooyu daanaka buñ defee ci ñoom xam-xam tamit buñ génnaatee ñoom ñooy tasaarewaat ñaawteef ñoom ñooy yàqaat li nga xamante ni bi moom la ñëpp bokk ñoom ñooy indiwaat violence bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi citoyenneté bi nga xamante ne bi réew mi ñu nekk fonk gi ñu ko war a fonk ak jëmmal gi ñu ko war a jëmmal euh, duñ ko def ndax ñooy këpp kees yi ñooy def jikko yi nga xamante ne bi lépp dafa dafa dafa safaanoo ak citoyenneté dafa safaanoo ak lislaam kon daal ci gàttal bu ñu bëggoon a tënk waxtaan wi dañuy wax ne Serigne Cheikh ñëw na bu baax a baax a baax ci solos éducation islamique ni mu amee solo wane tamit pàcc yi nga xamante ne bi moo ko tënk te ca pàcc ba ca ëpp solo mooy wàllu gëm-gëm ndax gëm-gëm mooy lépp wàllu éducation islamique nag am na ñoo xamante ne bi ci école yi dañ koy séparer ak li ñuy tuddee ak tarbiyal xuluqiya am na ñoo xam ne dañuy def tarbiya islamiya mu doon matière boppam am na ñoo xam ne dañuy def tarbiya xuluqiya mu doon matière boppam waaye buñ ko xoolee ku ko ci def mu doon matière boppam ak ku ko ci defut dañuy gis ne la ñuy def lépp lenn la ndax la ñuy jàngal xale bi weesuwut ay valeur yoo xam ne valeur valeur lislaam la mu doon matière bu beru nag la tax mu am solo ci école yi mooy valeur yooyu tasaaroo woon ci biir eh, tarbiya islamiya dañ koy daal di dajalewaat yépp ber ko nag tuddee ko matière boppam boo ne dañ koy gën a jox yitte looloo tax ak tarbiyal xuluqiya ci école yi mu doon matière boo xamante ni bi dañ koy ber la tasaaroo woon ci ay valeur yoo xamante ni bi daa nekk ci biir programme yi te xale yi mën nañ ko bañ a bàyyi xel ñu génneewaat ko dajalewaat ko loolu lu ama am solo la ñu gën koo bàyyi xel bu fekkee suñu daar yi mën nañ ko delloo siwaat li ñuy tuddee éducation morale def ko matière xool valeur yi nga xamante ni valeur islamique la ak suñu baaxi maam yi nga xam ne moom lañ ñu fi bàyyil te l'islam bañu ko lépp ñu dëxëñ ko gën cee yar xale yi dana tax ñu amaat produit yoo xam ne bu ñu génnee duñ yàq li nga xamante ne bi moom la ñëpp bokk duñu indi violence ci dëkk bi duñ nekk di këpp kees duñ yor jikko yoo xamante ne bi daal day safaanoo doomu aadama li tax yàlla indi ko ci kaw suuf te mooy mu dundal suuf si nekk fi melokaan woo xamante ne bi bu ëllëgee bu ëllëgee dana mën a am ngërëmal sunu borom ba mën a dugg na ndax loolu ku ko bàyyi xel xam ne da ngay dund fii waaye bu ëllëgee tamit am na beneen dund buy amaat te dund googee bu fekkee defoo woon li nga war a def fii mën nañ laa fayee loo xamante ne bi sa dund foofa du neex bu boobaa li nga war a nekkee fii da ko fi nekkee te loola islaam yi rek moo ko moo ko moo koy mayee kon muy tomb bu am solo doon tomb bu yaatu boo xamante ne bii warees na ko gën a bàyyiwaat xel école yi war nañ ko gën a bàyyiwaat xel jàngalekat yi gën koo bàyyiwaat xel xam ne ay valeur la yoo xamante ne bii dañ koo war a gën a eh, dajalewaat gën koo defaat ci xale yi rawatina nag école yi ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ne bii moom la ñu tuddee laiha daaxiliya yi mooy luwaay yi nga xam ne mooy tënk école yi mooy tënk doxin wi ci biir école bi ñu gën koo bàyyi xel ndax luwaa yooyu bu dee ci école islamique la luwaay yi ci lislaam lañ koy inspiré woo ci lañ koy tibbee bu boobaa nag buñ ko jëlee teg ko doon loo xamante ne bi ndax ay luwaa li ko tax a jóg mooy xale bi xam ne kat lii moo ko war loolu dañ koy leeral ci biir laiha bi ci biir euh, euh, règlement intérieur yi dañ cey leeral xale bi li ko war la war lépp lañ cey tudd bu dee ci tarbiya islamique bu dee ci école boo xam ne école l'islam la ci l'islam la ñuy tibbee loola ko war leeralal ko ko war la ko war nag bu ko defut la ka cay fekk tamit ña ngi ko dëxëñ ci biir règlement intérieur yi kon la ko war dañ koo war a leeral mu leer naññ te loola ci biir lislaam lañ koy tibbee waaye bu ko defut tamit sanction ya ka cay fekk dañ koo war a leeral ba mu leer naññ te ku ko ci defut ñu jëfandikoo sanction yi ndax doomu aadama tamit xamul rek defal bul bul def xamu ko maanaam defal mën nga koo wax mu def mën nga ko wax bul def mu mu def bu boobaa boo ne ko defal defut dafa war a am daan yu ca war a teg boo ne ko bul def mu def dafa am daan yu ca war a teg daan yooyu tamit ñàkk ko appliqué ci suñuy école ak ñàkk gum ñàkk leer ci suñuy école tax na xale yi jikko yu baax yi ñu war a yor yorut yorutuñ ko kon loolu tamit école yi war nañ koo bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ne règlement intérieur yooyu war nañ ko bindaat te bu dee ci daara yi nga xam ne lislaam a leen tënk ñu gën koo tibbee ci lislaam daara yi nga xamante ne bi dañoo nekk ci biir réew mi te ko ci lislaam tamit war nañoo dox jëm ci fexe objectif yi ak doxalin ñu tibbee ko ci lislaam ndax jafe-jafe yi yëpp li ko indi mooy daara yoo xamante ni bi daa nekk ci biir réewum jullit te la ñuy doxal wuñ ko ci lislaam jafe-jafe bi loolu rek moo ko indi kon war nañoo dox tamit gën a jëm ci loolu kon ñoo ngi santaat sëriñ Cheikh bu baax a baax a baax ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne andil nañu ko di fàttali rek ne suba incha allah waxtaan yi dana wéy eh, danañ ñëw ci alwasaaya bi nga xamante ni bi sëriñ Moustapha Diatara moo koy taxawee mooy wasaaya Cheikhul Khadim mu war koo jàngat analyser ko incha allah suba loolu mooy am gannaaw suba tamit am nañ fi waxtaan wu am solo woo xam ne tamit ñu ngi leen koy bàyyiloo xel moo xam mu jëm ci wàllu euh, situation bi nga xamante ne bi moom la réew mi nekkee ci wàllu social ak ci wàllu politique euh, docteur Jibi Jibril Jaxate di ko ñëpp ñëpp ñu bari xam mu war ñu ko defal moom it ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax muy suba ak gannaaw suba kon ñoo ngi yemale foofu kàddu gi di ko delloowaat sëñ Fallou Ndiaye di santaat sëriñ Cheikh bu baax a baax ci turu daara ji turu sëriñ Moustapha Diatara mi nga xam ne mooy njiital daara ji di santaan mbokk yi ñu doon topp yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay jërëjëf euh, sëñ Basirou Diatara ci modération bu am solo boobu nga ñu indiloon ki nga xam ne moo ne def waxtaan nekk inspecteur suñ Mbàkke ñang waxtaan am solo boo xam ne defal nañu ko tey jii ci l' importance de l' éducation morale à l' école na pour njëkkante waxtu julli rek dañuy jox ki nga xam ne moo war a wax ci kàddu groupe scolaire Touba Aljanna muy sëñ Ahmadou Bamba Ndiaye kàddu gi bu ko defee mu indi kàddu école bi bu defee ñu eggali ci des sëñ bisimilah Euh, salaamaaleykum maa ngi siyaar mbooloo mi fi teew yépp di rafetlu kàddu yi fi jot a rot nekk ay kàddu yoo xam ne yu sell la kàddu yoo xam ne yu bari njariñ la ndax bu dee sëñ sëñ bi invité woon lim fu wax am na lu ma ci jot a déglu waaye li ma ci jote fekk ba ni mu jeexee ni mu ko tëjee lépp lépp rafet ay kàddu yu rafet la te mu nekk kàddu yoo xamante ne bii nii njariñ la goo xam ne société bu ko jëfandikoo rek mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa jëm ca kanam ndax ay kàddu la yoo xam ne yu bari ay njariñ la te ñu mel ni ñii dañoo nekk ñoo xam ne ay porteur de voix lañ ñoo xam ne ay éducateur lañ te ñooñ société daf leen di soxla seeni kàddu di ñëw lu bare bare ba yegg ci fu mu war a yegg dafay am solo lool ba tax na suñuy suñuy gën di bari yu mel nii muy gën a wàcc ci terrain bi dana ñu mel na ñun dana mën a xoolaat suñu bopp dana mën a defaruwaat ndax ci école lañ doon wax te ñun dañuy yëngu ci école école biñ nekk nag mooy école Touba àjjana école la bu sosoo ci daara xam naa ñu bari du ñuy faral di sax gis lu mel noonu ndax école bu sosu ci daara bariwul loo koy dégg école la boo xam ne ci daara la sosoo ah ki ko sos nag nekk ab ndaw boo xam ne lislaam rek moo ko ñor mu yàgg dund loolu yàgg cee daj loo xamante ne bi nii lu lu lu lu doy waar la muy sëñ Ousseynou Fall mii toog ndax jeune entrepreneur la mënoon na investir ci leneen waaye ci alxuraan la tàmbalee ci daara nga xam ne bi muy tàmbalee su ma jumut amutoon sax lu tolloog ñaar fukki ndongo waaye tey fii tey suñ boroom ak dëggoom ak pas-pasam ak yéeneem boobu moo xam ne moom la amoon moo dem ba liggéeyam bi yépp mën a mën a feeñ ba jur lii ndax fi ñu toll nii may wax ak yow groupe la léegi groupe scolaire boo xam ne quatre cycle la amee am na internat am na élémentaire am na daara am na aussi euh, kii bi jardin d'enfant yooyu yëpp am na ko préscolaire waaw mu xaaj ko ci ñeenti xaaj yooyu noonu waaw moom nag comme ni ma la ko waxee sànq rek ku tàmbalee ci daara di ñoŋ-ñoŋal di ñoŋ-ñoŋal ba fii nii nga mën fa yegg si genre yu mel noonu la ñu soxla ci ci ci ci ci société ndax nit comme ni nga koy waxee sànq ndax bi nga koy waxee sànq sama xel dafa dem ci processus de socialisation nit mënul juddu rek nekk bàyyi ma nit mënul juddu rek am fu mu mën a yegg. nit dafa am fu muy jaar fu mu koy togg comme ni ñuy toggee or di ko defar ba mu rafet foofu lañuy ñuy jaarale nit te loolu école walla daara ñoom dañoo bokk ci piliers yi nga xamante ne bi ni ñoom ñoo ko war a defar ndax société dëgg la waaye balaa société di jot ci nit ki day fekk am ñu am fu ñu ko jaarale ba noppi tëgg ko te loolu école moo koy moo koy tëgg walla daara te bi ci jiitu sax. mooy daara ndax daara moom moom moo jiitu ci lépp amul beneen jàng boo mënti jàng te mënoo cee jiital daara soo jiitalu daara beneen jàng boo teg ci kawam rek mën naa rës waaye boo amee fondement bu wér éducation de base muy daara ba pare am ay teggi nag yar goo xam ne defal nañ la ko beneen xam-xam bu tegu ci yow rek su boobaa mën na laa bañ a dëpp mën na laa bañ a yàq soppite ci say doxalin mën naa bañ a indi leneen ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa nite ndax fekk na am nga fondement am nga tabax bu wóor muy lan muy ni nga ko waxee sànq am nga imaan am nga islaam kon li ci des mooy lan mooy ixsaan rek jéem a rafetal ak waa société bi waaw bu fekkee ne sëñ bi dafa am lu muy lu muy lu muy ah waaw waaw bu ko defee ñu ñu xam ne euh, importance ci éducation morale dafa nekk loo xamante ne bii nii ak caslaay la lu mënul ñàkk la nit mënul mënul boppam dara dañ koy mënal fi ne yaa ngi wax sànq ci kilifa yi walla ci njiit yi nga xamante ne bii nii boo leen xoolee ni ñuy jëfandikoo léegi ak ni ñuy doxalee te loolu lépp li ko waral boo xoolee ñooñu ñëpp amuñu éducation de base moo waral ñuy def yenn yi yar gi des na. nàmp gi leen waroon a nàmpal ci lislaam des na ndax xam naa bu fekkee ne nit ki dégg na dëgg lislaam di ko dund di ko dund di ko jëfe duñ la jël lu tolloog alalu mbooloo nga xam ne li ci wekku ci xamoo mbooloo mi nga jiite te mbooloo mi mbooloo mi nga jiite rek di nga jiite ku la gën di nga jiite ëpp xam-xam di nga jiite koo xamante ni bii nii sax la mu fa mu toll suñu borom yow yow yow yeggoo fa nga jël lu mën a tool noonu lekk ko yow kese. bàyyi ñi ci des loolu kooku mën nga mën nga wax ne kii leer ne wut ci xol bi amul dara xam-xam ndax leen rek la topp muy lan muy bàkkanam kese la topp ndax science sans conscience boobu nga waxoon ne que ruine de l'âme lool lool lay loolu lay firndeel yaa ngi jëf te xamoo ne li ngay jëf yaa ngi gaañ askan man dama léeg-léeg sax su may waxtaan ak ñenn ñi dama naan leen li ñuy wax naan euh, crime contre l'humanité loolu moom mooy crime contre l'humanité pour crime contre l'humanité mënut a wees loolu nga jël sa doole ji pouvoir bi la yàlla jox nga di ko jëfandikoo di ci ci lor nit ñi ku ànd ak yow bu tooñee dara du ko ci fekk ku àndut ak yow bu juumee sax nga nga jëfandikoo ci njuumte ga mu njuumte profitoo ci def ko la nga ko war a def ngir lan ngir bëgg nit ñi bàyyi la xel wala ngir bëgg nit ñi am lu ñu la ragalee loolu manque d'éducation de base moo koy moo koy faral di jur. bu fekkee ne waaw. jërëjëf sëñ Ahmadou ma Ndiaye ci intervention bu am solo boobu wax daan kàddu yi rafet na lool macha allah xam naa wax ju wee xaw a euh, moo tënk rek mais kon nañu bàyyi nga gën a yaatal ndax li ngay wax dafa complété thème bi. xam naa pour njëkkante wax ju rek mu mel ni suba incha allah rabi taala sëñ Moustapha Dia dana ñëw ci les recommandations de Cheikhoul Khadim maanaam dénkaane sëñ Tuubaa yi euh, di leen fàttali nag thème bu am solo muy samedi incha allah rabi ngeen mën koo fekkee. ñoo war ci ànd ak professeur Djibi Diakhaté muy la situation sociale et politique au Sénégal mu nekk thème bu am solo boo xam ne ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ngeen mën koo ci waxtu yi bu ko xam naa dañuy taxawal rek jox jox sëñ Bassirou ba suba jàmm allah jërë ngeen jëf di santaat baax baax tamit école lu groupe scolaire Touba Aljanna ñu jóge ba Daaru Salaam Gaawaan ci jiitu suñu Ousseynou Fall mi kon ñu leen di sant baax di leen gërëm di leen ñaanal tout ba wax yéen ci am ko ci baax Xaadim jërë ngeen jëf allah si